Africa, inauguré précisément en juin 2009, vous souhaite la bienvenue, fidèle chers téléspectateurs de la DTV. Je le rappelle tous, c'était sous le magistère du président Abdoulaye Wade ñu leen di jaajëfal nag mbokku téléspectateurs yi nga xamanteni yene yéenay fim fi ci jamono ji la magie de la télé la DTV numéro bu njëkk bu jëm nak ci seen émission bu bees bi ñu tuppee face à la nation buñ koy tek ci wolof manam janook askan wi ñoomal ko fii nag tey jii ci place du souvenir africain buñ ko waxé nak mu doon gox bo xamanteni wala mu doon diwan di kuréel kër go xamanteni gu am taarix la ndax bo fi ñëwee di nga fi gis ay figure emblématique yo xamanteni nak ñom ñoo bokk ci wa dendup l'Afrique tey jii nag fii la ñu taamu rek ngir fi waxtane lepp lu jëm ci walum émission bi lé en pleine campagne ñu nar waxtane ak lepp lu jëm ci walum ay programme waaye tolluwaayu réew mi budé ci walu wàllu coalition benn bokk yaakaar di coalition bi nga xamante ni njiitu réew mi fi nekkoon durant son septennat de le président Macky Sall moom moo ko jiite wàllum bilan bilan programme lañ nar waxtane waxtaanee ca geneen wàll ga nag am ñeneen ñoo xamante ni ñoy ñooy dagaan baatu askan wi di au niveau donc de Pastef les patriotes tay di ñu teunk ci ab coalition bo xam ñu ko duppee nak euh, coalition Sonko au président tay nak lool lañ nar teunk waxtan wi lee waxtan wi nag ñoo andak nak public bo xamante ni tey dañoo ñëw teewe wi dinañ mëna sax interagir tout à l'heure à travers donc li nga xamante ni ci lañuy ñuy waxtaanee joxe ci seen xalaat waaye waxtan wi du ci wéet man kessé ndax dama ci nar a samay ndax bu ma euh, site d'information bi di Dakaractu seen xel dina dem ci ki nga xamante ni moom mooy Samba Ardo Ba Samba Ardo moomu leen nar a ànd ak ci waxtaan wi la Samba maa ngi lay nuyu. ci waxtaan wi ñor ci ànd ak aussi ki nga xamante ni mooy rédacteur en chef bu la rajo Dunia Vision di Cheikh Ahmadou Bamba fay Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi lay nuyu. Mansour euh, nuyu naa la di nuyu public bi ak sunu ganu tey ji di nuyu sénégalais ñuy seetaan yëpp. Euh, Au-delà même de ma personne, la DTV est doublement représentée à travers la personne donc de Marguerite Rosalindiaï. Beaucoup de ci euh, DTV ba pare bokk ci li nga xamante ni moom euh, la voix du cœur Marguerite Roseline, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mansour di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo l'Assemblée ak itam suñu auguste assemblée ak invité voilà suñu invité yi dañ koy parce que tey jii dana am dalal ci wi le ministre du tourisme ancien ministre de la jeunesse l'initiateur de la plateforme Sénégal 2035 di monsieur le ministre Mame M. Niang monsieur le ministre maa ngi lay nuyu. Nous ngi lay fay di nous sa invité sa collègue yi di nuyu public bi di nuyu suñ mbokk sénégalais yi ñuy eh, ci waxtaan wi ñu nar cee ànd ak eh, biram Souleye Diop di administrateur général bu Pastef les Patriotes tey tey ñu nag tënku ci waxte kuréel gi ñu duppee coalition Sonko 2019 moom nag inspecteur des impôts et domaine la Biram Souleye maa ngi lay nuyu. waaw Sow ñu ngi lay fay eh, di nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu monsieur le ministre parce que nuyooguma ci kanam kii donc ah, euh, c'est une omission hein. waaw donc di nuyu ñu fi teew aussi di am yaakaar que on est face à la nation dinañ waxtaan.

particulièrement ndaw ñi ak jigéen ñi ñi nga xam ni fi mu nekk nii ñoom la candidats yi gën a song parce que ñoo ëpp ci réew mi di leen nuyu di leen jaajëfal ci dal gi ak surtout conditions yi campagne bi di amee parce que ñu bari yaakaaroon nañ fitna parce que am na ñu ko fi doon jéem yee waaye yàlla suñu boroom dogal na ba léegi daal ñu ngi ci jàmm di ñaan yàlla eggale ko le 24 février nous voté le euh, résultat yi Sénégalais yi candidat euh, programme le contrat pour les Sénégalais merci beaucoup monsieur le ministre ah bon effectivement euh, campagne électorale c'est vrai euh, Attention yi mais je rappelle je rappelle à notre attention à tous que euh, le siège de Pastef à Yoff a été saccagé on a dit qu'on cherche le buzz on a problème on a tué Maria Massagna. on a dit Pastef ñoo ko amul problème on a attaqué nos jeunes à Saint-Louis on a dit qu'on cherche le buzz amul problème à Louga on a attaqué encore le cortège cette fois-ci la sécurité ñooy pas xalé d'où leen ci ay pour sécuriser leen yóbbu leen teg leen ci loxo police peut-être encore qu'on cherche le buzz mais l'important c'est que ñu xam ni euh, ñun du ñu yëkkati dara di de teg ci kaw kenn donc c'est simplement pour dire am à car que campagne bi le territoire sénégalais kenn moom ko ku ne di nga dugg fu est ku ne am nga sénégalais yi ñu yóbbul nañ leen bàyyi ñu déglu ñu décider en leur intime conviction qu'il ñu a ni moo gën bu dee Ousmane Sonko la ñu nangu bu dee Macky Sall la ci conditions yi leer ñu nangu amul benn problème incha allahu rabbi voilà dinañ ci dikkaat tout à l'heure honneur aux dames Marguerite euh, ñu bàyyi la nga njëkk laaj suñu ñaari invité yi li nga xamante ni moom mooy sa question yu njëkk. Euh, yi dalal Euh, njëkkee ak ki nga xamante ne mooy monsieur le ministre Mamadou Mbaye euh, nekk nga fi ministre de la jeunesse euh, ci après bi nga ñëw nag nekk yor li nga xamante ne moom mooy tourisme ci wàllu emploi des jeunes gis nañ ni bokk na ci li ngeen di battre campagne fan nga ci toll li nga jot a liggéeyal ak ñaata emploi nga jot a créer pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy également bu ñuy wax ci wàllum bilan euh, tey moom ngeen di compagnie li ci ëpp ay yoon la ay infrastructure et tout est-ce que loolu la sénégalais yi soxla lan ngeen fas yéene tegaat euh, ci loxo sénégalais yi une fois ngeen euh, di dagan baatu ñi nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais yooyu Pastef aussi. ki nga xamante ne moo di seen njiit Barki Dembo Ndiaye rencontré na ki nga xam ne moo di maître Abdoulaye Wade euh, moom mu ngi woote wàllum système est-ce que amul paradox euh, ci ni nga xamante ne noonu la doxalee est-ce que parewul également pour euh, ki nga xamante ne moo di maître Abdoulaye Wade boobu noonu bu ko tendre la main mu dem mbuyu ko foofu noonu est-ce que amul paradoxe par rapport ak li muy woote ak tey fi nga xamante ne foofu la jëfee. Voilà, monsieur le ministre, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Sornesi. C'est vrai, nous avons un ministre de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne. Euh, mais je ne vais pas dire que je programme et bilan, peut-être là. Tu vois l'emploi, Japonani, si nous référence, chiffre référence, le président de la République, c'est que nous avons créé 5 000 emplois ci septembre. bi dans dernier discours à la nation du président def Mengo on reconnaît que créé 490 000 emplois Et xam inspection du travail moko répertorié que état lim mu créé ci emploi privé lim créé ci emploi entreprise bu créé wu lim ci emploi contrat bi ngay signé ak ndaw bi pour ñu man ko euh, xayma biñ ciy wax ak ak bi def dañ koy enregistrer inspection du travail loolu motax inspection du travail moo am euh, crédibilité waye mo am outil yi tax mu compter nombre d'emplois donc 490 000 sur 500 000 emplois mais ci 490 000 emplois dañuy emploi informel est informels, emploi informel par exemple si on wàllu mbay que 250 000 tonnes sont faites en 2012 Nous ñi ngi 1 tonnes production guerre, 300 000 tonnes ñi 1 450 tonnes production horticole bi dañ ko multiplier par 4 production bi ni mu yokkoo non, xam ngeen ni du ay euh, du ay du même nit yi ñoo ci liggéey donc ay loxo ñoo ci liggéey yooyu ay emploi informel la yo xamni euh, comptabiliser wuñ ko ci 590 000 emplois comptabiliser wuñ tamit nombre de jeunes yi ANPEJ ak PAPEJ di financer mënoo comptabiliser parce que du ay contrat yu dem inspection du travail donc ci wàllum emploi man li ma ci mëna wax ci bilan e que le président de won ak avec la euh ak jeunesse sénégal peut-être def nañ ci mais Diego, bi damay nangou ni doyul lutax doyul ñu ñëpp xam nañ ni que euh, chaque année 200 000 demandeurs d'emploi 200 000 demandeurs d'emploi boko d'hommes, am muy sont sur 5 ans sur 7 ans, dans les guisnes, il y a 1,4 million 1,4 1 million 400, 550 000 ou 650 000. Donc, demande de m'engager. L'homme le président de la République, ni nous régler le problème l'emploi qui trois phases. Dans l'immédiat, dans le moyen terme et dans le long terme. Dans le long terme, la vérité est que nous ne prenons que nous avons mis au Sénégal indépendance de 2012, mais nous avons euh, réalité marché emploi Nous sommes tous, nous ñu ci dem université am ñu ci dem ci yenn école ñu ñëpp xam université boo fu masaan une li nga fay licences licence mathématique licence des géographie licence su droit licence bu licence arabe licence sciences physique et licence licences, boo ko maîtrise yooyu boo ko amee taxul nga pourtant ça waa kër dañuy jàpp un diplôme lolu mo nek jafé jafé bu mag bi loolu moo président de la république entamé ay réformes université ba taxone sax tension di ci am lolu motax tay nga meuna genn am licence tourisme am licence ci benen matière wala am licence ci benn filière bo xamni sa qualification dina la gën a mën euh, marché emploi bi yamul ci lolu mu ni nañ tabax ñaari université yu

sénégal tout à l'heure euh, lapsus c'est assez révélateur parce que 50 000 emplois en lieu et place de 500 000 emplois Nous, bare très réducteur c'est manque de vision que dans un pays où on reçoit presque 200 000 demandeurs d'emploi chaque année que ngay vise objectif de gagner 500 000 emplois nga ni légui jot nañu euh, euh, am 400 000 et quelques mais tey jii askanu Sénégal pour une population de presque bo xamante gis nañ les deux tiers ay ndaw lañu lolu vision bu bare bari ñu nañ nañu jëtu réew mi dafa ñank vision ci walu woowu déggo bu baax. wala bëggoo bu baax a baax déedéet xaaral. déggo bu baax wala bu go dégg dama ni la programme bi ñu falé président de la république bu tuddu yoonu yokkute. 500 000 emplois le jël engagement ci septennat bi waxuma fi benn yoon 50 000 emplois donc septennat bi yoonu yokkute Macky Sall bi 2012 programme bi 500000 emplois moo ci nekk loolu laa wax. mais loolu la jàpp ne que ni. mathématiquement parlant c'est trop réducteur même. Non. par rapport ak li nga xamante ni ci réew un septennat nga ni da ngay dig ndaw ñi 500000 emplois ñu bare yaa jàpp ne que c' est réducteur. Wa man sama bopp ak yenn ci sénégalais yi aussi. waaw xaaral ma egg si ki ma laaj daf ma laaj lan ngeen def ci emploi mhm. eggaguñu ci comparaison yi eggaguñu qui niveler wala réajuster daf ma laaj emploi li ngeen ci waxoon fan la toll ma ne ko ñun emplois pour septennat 500 000 emplois je ma wax ko ni que effectivement créé nañ ci emplois yu formel donc du lapsus. da ngay déglu bu baax pour nga comprendre lapsus amu 490 000 emplois lañu nous créé ñu inspection du travail contrat signé certifié validé juridiquement valable Manila beaucoup ak emploi informel yi ñu créé ma expliquer emploi informel yi la production bi agricole bi filière yi ñi jël 000 tonnes million tonnes ay loxo donte nañ ci machine donte engrais mais production 300 000 tonnes d'arachide on 1 500 000 tonnes certes def nañ ay effort ci grain ci ci semence bi def nañ ay effort ci ci ci mécanisation mais ay loxo yokku nañ superficie bi yokku na ku gëmul bëgg a gis li am di nga xam que ci région du fleuve on a aménagé plus de 40 000 hectares additionnels c'est ce tax projection yi pour ni que dañuy atteindre autosuffisance en riz ñu ñu ñu egg ci pas dit waxuma ni que régler li ma la wax li ma le wax li ma la comme ça nous comprenons, li ma la wax dama réalité marché emploi moi chaque année dina am 200 000 jeunes sénégalais yu bëgg liggéey yu dugg le marché d'emploi. Bon, bi boo ma bàyyoon ma eggale 200 000 70 000 ci 200 000 2 fois 70 000 140 000 amuñu qualification amuñu métier ñun ñoo nekk Sénégal ay jeunes ñoo fi toog kër yi ñuy ut liggéey est-ce que di nga ci gis ku ni la néew na lu ci gis ku ni la am naa métier ñàkk métier googu moo tax utum liggéeyu xale gën a jafe ma lay wax saafara yi ci président de la république indi ma ne la dañ koy régler parce que mënoo xëy xëy rek regle ko ñii di wax ni ko dañuy xëy xëy rek régler ko dañuy nax nit ñi ni koy régler mooy jubbanti njàng mu kawe mi du ñëppay dem ci njàng mu kawe mi mooy stoppi jang mi fi am tabax ay universités yu bees yo xamni ni li day mengo ak jamono xel mën na nangou ni que bo dé liggéey bo dé jang ci université bo xamni spécialisation bi agriculture la comme Sine saloum bo génné ci nga ëpp potentiel pour liggéey xel mën na nangou ni que université Amadou Mahtar Mbow bi tabax spécialisé ko en intique bo ci génné ci ngay gëna mëna mën a liggéey jafe bi dañ ko fay fekk lool moy à long terme dans le moyen terme du sénégalais qui ay à l'université, ont na ñoo dañuy am bac am brevet président de la république bi muy la formation professionnelle c'est 1,9 des jeunes lañ à orienté formation professionnelle Jafé Jafé bi mi capacité nombre de places la formation professionnelle di nombre de places mi 24 000 en 4 ans nous avons 88 000. donc en 4 ans l'indépendance, de 2012 24 000 places nous en 4 ans on l'a multiplié par 4. Ce qui est xale yi nga xam nous université pour egg ci solution long terme Nous avons un métier ba affronter loolu j'ai justifié 34 nouveaux BTS yi ministre formation professionnelle lancé moi, j'ai expliqué... 17 lycées techniques le président de la république commencé tabax ay lycée Sandiara ak yeneen lycée technique bu ma ko waxee nga ma dans le moyen terme et dans le long terme rek nga wax dans le court terme il y a des gens amuñu métier jàng weesu na te ñi ci ëpp ci ñi defoon formation professionnelle parce que loolu aussi jafe-jafe la boo xam ni dañ ko fay fekk dañ koy assumer ni ñu koy assumer mooy wax jeunes yi dëgg ñi ëpp ci ñi am bac fini, banque finance marketing communication def parce que loolu moo fi amoon ñun créer nañ BTS en bâtiment BTS en plomberie BTS en froid parce que yoy boko ko da ngay am man nga xel man na nangu nga gën mën am liggé li ni këtt ni jonn boy yi jang ci amuñu am niveau intellectuel bu len mën permettre ñu entreprendre ñu on s'est donné le président s'est donné les moyens politiques créer ANPEJ ñu gis né que procédure yi dafa metti mu créer d'air pour donner la chance aux jeunes d'entreprendre. D'accord. Monsieur le ministre, voilà merci beaucoup de nous dikkaat tout à l'heure parce que notion d'urgence tamit une na trop c'est une politique c'est un programme délégation à l'entrepreneuriat rapide programme d'urgence de développement communautaire mu mel ni mbir mi da ngeen a dem ba yegg ci cappaandaw ko gis que ni ci wàll wi lu bare bari par rapport ak li ngeen diggoon askanuk Sénégal peut-être yeggewu leen ci dañ ci dikkaat tout à l'heure jox la dañ ci dikkaat tout à l'heure monsieur ñu ci dikkaat non non boo bëggee mm-hmm. c'est que buñ bëggee waxtaan bi baax mm-hmm. ak sénégalais yi jariñu ci mm-hmm. du ñu du def li xalé di wax bërëxal moy di def transition poser ben question bo xamné man après du ma xaaral xaaral xaaral boo ne xaaral xaaral xaaral plan d'urgence mhm. PUDC mhm. PUDC nous woon PUDC ñëwul parce que dañu ñëw mhm. contrairement ak ñuy wax dañu là. ñaari weer pour bind programme ñun dañoo wër Sénégal nous at gis ni que fii nous ñi amuñu ndox président ni moom ñàkk mën na ko jëmmal ci ay sénégalais Nous amuñu ndox bu ñu naan ñii tali dispensaire loolu pour nga saafara ko ay procédure d'urgence la loolu moo indi PUDC du dige buñ deful bokkul ak li ma wax ci wàllu liggéey tali yi ñuy wax parce que baax na yëf yi yamul ndakaaru njaay gii rek am na ay millions yu sénégalais yu amul woon ndox yu am ndox ndax PUDC am na ay millions wu sénégalais yu mënul woon dem seen dëkk parce que amul tali tey am nañ ay tali et du luñ digaate indépendance ba 2012 chaque at gouvernement bi ñaari forage la doon bind la doon bënn 2012 ba 2019 chaque at gouvernement bi 34 forage lay def donte des na donc du ay programme d'urgence yu ñu créé taf yëngal non loolu sa jugement la yow mhm. bu la neexee

Euh, dégg na ko jëmale ko ci ki nga xamante ni moom mooy Birame Souleye Diop di administrateur bu parti Pastef les Patriotes te yaakaar naa ni moom it mën na mën a réagir un peu par rapport ak euh, cadre yi monsieur le ministre ndax ci réew ci dëkk bi la bokk mi ngi koy suivre de très près un peu par rapport ak euh, yaakaar naa visitu président Ousmane Sonko ci maître Abdoulaye Wade nga doon laaj question bi Birame Souleye. merci beaucoup. so bala may tontu ci question bi ci waxtaanu président Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko demain vous parler un peu sur la question de l'emploi. Euh, c'est vrai, Monsieur le Muslim, information est de l'inspection du travail sur euh, les 480 000 emplois qui sont créés. 490. Il n'y a pas de problème. 491 si tu veux. Il y a problème quoi. 491 euh, 000 emplois qui ont été créés. Alors, mais il me une comme précision, faux, faux. D'abord, moi, je le droit social droit du travail Nous structurons structuré nous nit euh, de la formation nous, en général ñu automatiquement nos contrat à durée indéterminée la loi prévoit d'abord nous avons contrat à laisser nous avons contrat à durée déterminée Mais nous avons ne renouveler plus de deux fois Ce qu'on a fait, dès l'instant qu'il y a un renouvellement ñaari avons day automatiquement contrat à durée indéterminée la dans les statistiques dans les informations qui sont données qui nga par exemple euh, ci entreprise am contrat à durée déterminée de six mois sur l'année inspection du travail calculez, calculer calculez le contrat à durée déterminée plus le contrat à durée indéterminée littéralement par exemple ci entreprise bon choisissons par exemple Ecotel par exemple si on a signé contrat six mois bu contrat est géré, buñ ko renouvelé, mu contrat à durée euh, euh, euh, on considère que c'est deux emplois qui sont créés alors que c'est la même personne qui est concernée donc techniquement ce ne sont pas deux emplois qui sont créés c'est un emploi qui est créé Benen bi de secteur secteur ce qu'on appelle une très forte mobilité moi je suis par exemple dans une banque banque en fait c'est en général dans le secteur des services banque assurance, etc. Il y a une très forte mobilité. Donc, même qui a une RDV en cours d'année, même de CV, on considère que ces deux emplois, que c'est un même emploi, c'est la même personne qui est concernée. Donc, dans les statistiques, il faut que nous fassions extraction, un toilettage des informations pour qu'il nous ait des informations fiables. Mais quand on prend simplement les contrats qui sont signés, la même personne signe deux contrats, trois contrats sur l'année, on considère ça comme trois emplois, alors que c'est une seule personne qui est concernée avec un seul salaire qui rentre dans une seule famille. Je suis désolé, j'étais ministre de l'Emploi. Euh, je vous ai écouté, monsieur le ministre. Je bah, Pour vous établir la vérité. Dans mon déglou, dans 21h, 21h, 22 minutes. Vas-y. Très bien. Alors, euh, donc ça, c'est une, première précision. Tu vois, la création d'emplois. Mais, à côté de cela, en analysant pour voir, Sénégal, il y a entreprises il y a emploi qu'on perd par année le droit des procédures collectives Madame, le droit des entreprises en difficulté entreprises yi ils rentrent dans les marchés ils ne sont pas payés Impôts, douane payés, personnel ñu ci entreprise bi on n'a pas fait le rapport création d'emplois, emploi perdu et je donne en 2017 247 entreprises ont fermé ñaata nit ñoo ñàkk liggéey yooyu xale yi lu mënut a jàng la dépense bu ñu joxeetul ci kër la parfois même ay divorce am na ci parfois même parlons euh, de la situation de de de de la sortie ñi nga xam ne bu ñuy génn ñoom ñoo soxla de wuti emploi Euh, en 2017, je suis allé rencontrer les étudiants de l'ISEP de Thiès. Bon, il y avait trois cohortes qui, qui étaient sorties. Les trois cohortes on a discuté ils m'ont dit trois promotions ils gagnent, sept ñoo emploi pour plus de 80 sorties Lors c'est vérifiable euh, ma teg ci 500 000 500 emplois je rappelle que le président Macky Sall aujourd'hui c'est le candidat Macky Sall hein, il avait dit c'était clair qu'il ferait un mandat de 5 ans qui leur promettront 500 000 emplois. Si nous divise 500 000 par 5, ça donne 100 000 emplois par an. Il me semble que, techniquement et rationnellement, s'il progresse pour, dire, pour passer de 5 ans à, 7 ans, on doit aussi rajouter 100 000 francs par an, avec 700 000 emplois qu'il devait créer. Alors, on constate dans son discours, il y a une évolution sémantique. Parce qu'au début, effectivement, il avait dit qu'il allait créer 500 000 emplois. Mais aujourd'hui, le 31 décembre passé, il n'appartient pas à l'État de créer des emplois, mais de créer les conditions d'emploi. On est d'accord sur ça. Il n'appartient pas à l'État de créer des emplois. Bien faut l'État créer un emploi. Qu'est-ce que ça a amené Le recrutement du militant. Le recrutement du militant. D'accord Alors, sur la question euh, des, des, des, des, forages, sur la question de, en fait, des, routes, etc. Euh, il faut que les Sénégalais aussi quand on choisit un président de la République Macky Sall avant mu président de la République il n'a créé aucune route tabaxul Ben tali non non avant mu président de la République tabaxul tali c'était pas son rôle parce que il n'avait pas ce mandat là un président de la République Ben koy Nous, ñun sénégalais Nous sommes ko ci kër gi gën a ci Sénégal mu palais de la République Nous sommes ko fa ay garde rouge ne ko yow est serviteur premier a son premier serviteur il faut que ngay nelaw convenablement il faut que boy nalaw nga nalaw ci xel mu dal il faut que boy guen ñëpp taxaw parce que yow dañu japp ni li ngay daw askan wi nga koy dawal waaye yow président ñun Sénégalais duñ la bayé ak sa bop ndax buñ la bayé ak sa bop kessé manam yow Macky Sall nga ñew wala kum mu mënti doon nga ñew yow kessé kessé kessé amul ressources pour faire ce pays là ñun Sénégalais ñun ñoy contribuer ñun ñoy defar ce qu'on appelle un budget teg ko ci sa loxo et comment on fait Quand on a beaucoup de temps, il y a 18 francs pour imposition quand on a jar 100 francs beaucoup de 12 francs ou 14 francs pour xam ne contribution pendant 7 ans pendant ans on a contribué à mettre des ressources entre les mains d'un président de la République pour lire le budget alors coco, je précise que 2012 euh, ba 2000 disons, 2000, euh, 2012, la somme totale des budgets ça tournait autour de 17 000 milliards, la somme totale. Je précise que 2012 2018, la somme totale des budgets ça tourne autour de 22 000 milliards. On a le droit quand même, rare à Italie, sans compter que, de ce qu'on appelle des redevances. chaque fois que je une station, de carburant, je fonds d'entretien routier autonome manam prix bi may jënd essence bi am na loo dañ koy jël ne lii pour defar ay tali la alors dites-moi bu ko deful foofu daf ñuy tooñ parce que pour loolu la c'est affecté à cela forage yi wax on est d'accord il y a vraiment des efforts qui ont été faits parce que am na ñoo xam ne dañoo sonn amuñu ndox mais bu ñëwee effectivement on ça lii la ñuy xaar ci moom mu def ko mais ce qui s'est passé aujourd'hui c'est que xam nga forage avant dafa ce qu'on appelle en fait euh, une gestion locale des comités de gestion locale Nous avons géré gérer forage la facture d'eau euh, je donne l'exemple de Gaïa la facture d'eau le comité de gestion locale tournait autour de par famille à 4000 francs par mois on a privatisé en créant le système on peut en fait le système de la CDE en amenant en fait une privatisation au niveau de la gestion des forages bobu ba légui dafa xawa a indi ci yenn secteur yi je parle de Gaïa ay jafé jafé ci walu gestion bobu dégg nga li ma ciy jox comme exemple li may jox comme exemple mooy Gaïa 4000 francs la ñu fay ndox léegi 25000 francs la ñuy fay ndox. li may wax c'est vérifiable est-ce que du tamit askan wi ñoom ñoo yokku. non dama ni famille benn famille laa wax benn famille. bu doon fay 4000. tey 25000 francs lay fay. d'accord alors euh, bu ñu yokkoo chaque fois chaque année nous ñi chaque année suñu budget yokk pour nous prévoir tout cela c'est la prévision parce que gérer c'est effectivement prévoir Là, beaucoup de ci li ma un peu tu vois l'emploi, il y a des efforts à faire euh, il nous faut continuer à les faire euh, notamment adaptation ou curriculaire maintenant nous, ñun ci vois emploi bu on aurait pu faire une proposition euh, je réfléchis j'ai dit une chose. 40 euh, 000 milliards, la de bourse de sécurité familiale. 40 000, 40 milliards 40 milliards. Pour 400 000 ménages. Alors, moi je dis, par exemple, 40 euh, milliards si vous ko affecté je jeunes en sortie de formation Nous 40 milliards chaque année par exemple entre autres propositions pour l'emploi des jeunes hein, mais ben exemple bi may lay joxe rek ñu ci quoi entre autres propositions 40 40 milliards de ñu jox jeunes 50 000 jeunes nous génn ñu dis ñu la répartition pour sur ces 50 000 jeunes 50 40 milliards ñom lañ koy jox. ça revient à combien jeune bu jot jeune bu ci ci sur les 50 000 il va recevoir par exemple 800 000 francs sur le mois mais on dit à l'entreprise voici des jeunes formés 50 000 jeunes formés dans une compétence précise def une électricité par exemple ils disent école yi ñu pour la formation professionnelle c'est très bien mais jeunes yooyu bu ñu génnee nu ñu nu ñu leen absorbé ni lañ ni lañ proposé bu fekkee électricité la jàng bu fekkee électromécanique la jàng bu fekkee ni maçon la jàng bu fekkee plomberie la jàng bu ñu des entreprises professionnelles yoo xam ci la on leur dit voici des jeunes qui sont sortis am nañ compétence du secteur d'activité bi jël nous état on assure pendant cette période de stage sur sur un an 800 000, ça, revient à 70 000 francs par mois. Et entreprise, j'ai 50 000 par mois, c'est déductible de, tes impositions parce que charge de bois, c'est déductible. Ça fait que ce jeune-là, il a ont une électricité, il a mis une électricité, telle entreprise a sous-traitant le Sénélec, il a mis une électricité. Un an, l'État a mis 70 000, mon, mon entreprise a mis 120 000 francs. Quoi normalement, le minimum du monde mën a jox njabootam. may may rek. Birame Souleye dinaa dikkaat ci yow tout à l'heure mais je mais permettre on a Samba Ardo on a aussi Chiamat Bamba un peu par rapport à loolu nga wax a des gens qui interagir sur question bi toutes les questions question Marguerite Rosalie bi jëm ci un anti-système aussi qui veut collaborer avec euh, l'incarnation vivante de du système. waaw waaw bala nga rek permettre sama ñi confrères au moins ñu mën a dikk ci li nga xamante ni wax nga comme alternative ñu mën ko aussi le ministre monsieur le ministre aussi. D'accord. Euh, alors, euh, développement alors monsieur le ministre euh, Sénégal est 25 pays pauvres. Mhm. alors est-ce que tu taux de croissance de 6 contribue, par exemple ci Sénégal wala à la le Sénégal mhm. euh, candidat programme bokk euh, na tamit ci lu mu tënk ci ñett ponk mbirum économie mbirum réforme ak mbirum gouvernance publique alors tey lan ngeen di proposer Sénégalais yi ci wàllu modèle économique. merci beaucoup moi je en fait moi je suis choqué man dama dama dama jaaxle ma jaaxal mooy kii candidat présidence la yor ñu laaj ko ci wàllu xëyu ndaw ñi mu ni moom mu réfléchir. C'est un problème C'est un problème man man man damay réfléchir man lu am programme lay wax lu am programme c'est-à-dire lu ñu bind khatim. ni def évaluer ko dan ni les def exemple bim daf ni Je réfléchir exemple Je xamni, bo xolone xam exemple parce que li wax mais pêche da koy def y a un milliard deux qui sont dédiés exclusivement aux entreprises pour favoriser le recrutement des jeunes état dans une entreprise bi bo recruter jeune bu am vingt ans wala vingt ans wala ngay soog a def stage état bi mo lay fay pendant huit mois loolu lu am la ñing mais moom nee na day réfléchir moom il dit ni que day réfléchir donc mi ngi xool nan lañ ñu war a def ñoom donc amaguñ solution ñun solution lañ yor commencé koy dënn ñun fowuñu réfléchiruñu am nañ lu pare modèle bi commencé nañ ko niñ ko commencé mooy lii muy wax ni ñun def nañ ko xam nga moom nee na 40 mille milliards u DER bi mom daf koy ci lim buñ des jeunes mais attendez président de la république réorienté 20 milliards par année CFP 20 milliards par année Yo xamni ci régime formation professionnelle c'est pour aider à la qualification des jeunes buñ aient ñu stage... stage il y a des entreprises je le dis parce que j'étais ministre de l'emploi et que Bir ANPEJ l'a ko direction de l'emploi moo ko njëkkoon a yor et pour ne pas voler le mérite des gens je dirais ni que président Abdoulaye Wade moo ko créé bi a 500 millions lañ ci président a ko 501 milliards par année donc nous nous avons ñun li ñuy def dañ koy gis beneen bi ci ni que dañuy un emploi bi deux fois trois fois non nañu respecter ce collègue fonctionnaire qui est inspection du travail nañu respecter sénégalais yi nga xamni amuñu pété ay républicains lañ dañuy liggéey pour état du Sénégal chiffres yi bala inspection du travail du ko nous dañuy def euh, balance nombre d'emplois perdus ak nombre d'emplois créés bu faites ni que nombre d'emplois yi créé rek la kon dépassé ay un million d'emplois. mais da ngay déduire emploi yi ñu perte pour soogu mën a bind li et exemple bi ñuy joxe moo ñaaw ñii dañuy nax nit ñi il dit ni que 247 entreprises sont na mais waxu leen ñaata entreprise moo créé yow xam bon donc ça ça, c'est pour rétablir bon il dit 25 vous avez dit tout à l'heure que 25. le, le micro Samba. 25 pays qui gën a ci. effectivement Sénégal paiement mal. Faut la fekk moi on a proposé un plan sur 2035 sur pour ban parce que ku wax ni que nga un pays sous-développé pauvre à pays euh, émergent en 7 ans daa ngi parce que manager managers, ils savent que pour quitter un point qui s'appelle pauvreté pour aller vers un autre point qui s'appelle émergence il faut mettre une réglementation da ngay réglementer ba après mettre en place une procédures vous mettre en place procédures vous ba développer la culture manam, da créer cadre ñun cadre créé nañ ko loolu mooy premier effort yi seen yi ñu defloo Sénégalais yi xam nañ ni metti na xam nañ ni metti na mais metti na mais kenn yokkul dund bi ñu ngi absorbé 27 milliards yi muy wax xaw ma 10 deux mille milliards yi muy wax non c'est vrai am na mais ci fi ñu ko war a dugal lañ koy dugal quarante milliards yi muy wax feneen la jëmoon tey ñu koy dugal ci ay 400 mille familles. man neew ma ñëpp a ngi naan ndox ah. mais am na 2 millions de sénégalais yu amul woon ndox tey yu am ndox neew ma ñëpp a ngi faju am na 3 millions de sénégalais yu dul woon gis infirmière tey yuy faju mën nañ critiquer modèle bi mën nañ wax sëy muy baaxul mais commencé na mën na am ay lënt-lënt dañ ñuy fay pour ñu jubbantiko d'accord monsieur le ministre. permettra permettral Biram Souley répondre par rapport à la sollicitation Je yi nga mon ni confrère Samba Ardo question questions à ko poser, mais aussi il y peut-être relevé un par rapport à ce discours bi Biram Birame euh, est-ce que Samba Ardo mën revenir sur question. d'accord alors qui euh, ay solutions yu. non tax gis d'accord vous, voulez jouer au journaliste Excusez-moi, je suis désolé. Je suis désolé. Très bien. Alors, je disais qu'il y a une euh, solution aux candidats qu'on a proposé. bokk na ci dit mu tënk ci économie une réforme et une gouvernance publique alors tey c'est euh, un candidat lan la a à askan wi modèle économique voilà très bien maintenant euh, je reviens sur ce que j'ai dit je maintiens mon propos sur l'inspection du travail parce que les relations qui chez les procédures collectives de disparition des entreprises les résultats ne sont pas traduits au niveau de l'inspection du travail demu je maintiens ma je maintiens ma position sur le point ensuite il dit nous effectivement ils ne réfléchissent pas ils ne réfléchissent pas pour la bonne et simple raison pour la bonne et simple raison que 22 000 milliards fi

Nous avons cinq grandes initiatives trois projets sectoriels cinq accès universels loolu amul la justice devra être indépendante nous avons des éléments au niveau de la justice des dossiers au niveau de la justice on n'en parle pas et il ne nous parce que nous, c'est eux qui avaient chanté sur tous les plateaux sur tous les toits gestion sobre et vertueuse kenn waxatu ko kenn ça veut dire que au moins c'est clair que ça ne les intéresse plus voilà bon ça ne les intéresse que quand ils pensent que c'est quelqu'un qui est dans l'opposition Bon, xam ne war nañ ko mën a toroxal yóbbu ko kaso ci condition kese la ñu intéressé may may wax ni may wax euh, sur les entreprises qui sont créées mais quelle entreprise on crée yan entreprise qui crée Ni créé entreprise c'est boo defee boo demee ANSD en général, ni Wouti, ce sont des gens d'abord qui, créent, qui, qui cherchent le Néa pour pouvoir voyager. Donc, Wouti, Néa, pour am le passeport pour mener gagner des voyages. D'abord, d'accord Parce que rémunérer, on crée Wouti, Wouti, Néa, gagner des sanions. D'accord Ensuite, entreprises qui créent, mais c'est des entreprises qui disparaissent. ça, les rapports IDF, ANSD, que le taux de disparition des entreprises nouvelles qui sont créées, d'affaires baril on donne à des entreprises étrangères des exonérations suffisantes alors qu'on n'aide aucune entreprise sénégalaise dans sa première année de vie à échapper à l'imposition Madame Taï, bu ñu waroon une entreprise ne cinq ans yi faire fay imposition ben année la nous toog imposition mu disparaître et je rencontre des jeunes qui créent de petites start-up une ñëw année bi leen année bi leen njëkk a 500 000 francs pour imposition ci la ñuy disparaître ci la daw dem seen alors que c'est des jeunes qui ont de la compétence qui ont pris l'initiative de dire je ne vais pas travailler dans le privé je prends l'engagement man sama wàll bopp ma jëngu créer sama yëfi bopp ça ça existe alors maintenant sur euh, sept ans ñu liggéey ko bi ñu ñëw fii Sénégal ban la nekkoon vingt-cinquième pays pauvre 7 ans ñu 22 000 milliards le Sénégal reste 25e pays pauvre ils ont déplacé le curseur vers où vers où ils ont déplacé le curseur il faut qu'on soit sérieux dara dara <laughs> ensuite sur la question sur la question de l'économie allez-y allez-y je peux y aller allez-y Hein? Bien sûr. Merci. Sur la question de l'économie. Nous devons dire, xam l'économie, économie y a le taux de croissance le taux de croissance l'économie, de am loo nous ne en général l'économie financer. yi lañ koy financer. la monnaie l'imposition et l'endettement en 2017 nous étions en taux nous étions un endettement de 6 000 milliards euh, am nañu 7 7000 milliards yu lebi le taux de croissance bi je rappelle que sur le PSE ils vont dépasser le dinañ ko dinañ ko 8 nous sommes en 2019 ils sont à 7,1 et 7,1 c'est quoi c'est quoi c'est un ensemble de projets qui sont lancés yoo xam ni ki koy téye ki koy doxal qui est exécuté ñu koy exonéré muy le bénéfice de di pourquoi l'entrepreneuriat sénégalais l'industrie sénégalaise les les les maanaam ñi nga xam dans le secteur d'activité au Sénégal ils se plaignent parce que dans les marchés publics en général ils sont ils étaient exclus bon c'est vrai que sur les deux dernières années ils ont essayé de rectifier le tir mais les gens s'en sont plaints jàmbat nañ ko ba tey ne ne lu fi nekk lu baax emprunter. Exonérer, exécuter, exporter. dañuy lepp waa ñew lebal leen ba paré exécuter ko bu paré du fay am benn impôt buñ koy laaj su paré exporter bénéfice am te bu koy def amul benn transfert de savoir faire bu muy def Sénégal maanaam bañ nañ ko ba bu ñuy tabax ba bu ñuy tabax dañuy teg seen i seng liggéey guddi benn Sénégalais accédé wul à la connaissance. dans quel pays on est ñu ne ñu ne ñu ne ñu ne kii alors bu loolu weesoo. <laughs> bu le vaisseau. s'il vous plaît. Mhm. bu vaisseau. Je may wax ni c'est un élément la deuxième élément bi la sub la substitution des importations Sénégal boo xoolee le secteur qui marche secteur qui nga le plus bari intervenir dans dans dans l'économie c'est le commerce P.I.C. liñ ci bind ci dépassé deux pages c'est vrai tey on leur a suffisamment rappelé, dans leur plan, ils parlent d'industrialisation. On leur a suffisamment rappelé. Madame il fait 7 ans. Il n'y a pas d'industrie qui sont créées, il n'y a pas d'industrie forte, il n'y a pas d'industrie lourde, Ils se sont rendus compte de l'échec de ce qu'ils ont fait pendant 7 ans. En fait, industrialisation. Alors que le développement, beaucoup de l'agriculture, de industrie, tout le monde ne peut pas être commerçant et tout le monde ne peut pas acheter. C'est ce que Cheikh Bamba allez-y. jërëjëf euh, Mansour ganao bi ñu la monsieur le ministre ci euh, yow laay commencé. Mhm. Euh, ndaxte bu ñuy l'actualité ci actualité campagne bi ki nga le candidat de la coalition Benno Bokk le président sortant se trouve en région sud du pays. Mhm. dégg nañ ko mu def déclaration yi nga xamante sa dans le sens de réaliser des infrastructures bu mu wax la réalisation de fa les gens de la région sud dinañ voyager en toute sécurité te ku ko wax secteur bi nga le ne nga le ministère du tourisme bu dee da nga zone de Casamance ba au niveau de la région de Mbour Il euh, faut waxee euh, lan prévoir ci tourisme d'autant plus que ci septennat Macky Sall le président Macky Sall mhm. gis nañ le tourisme dafa contact ak jafe-jafe eh, leneen li nga xam ne moo ko xaw a conforté ci jafe-jafe yi may wax mooy dégg nañu ci biir campagne bi syndicat bi nga xam ne moo ëmb les travailleurs des restaurants hôtels ak yi ci topp ñuy wax ne gisuñu seen bopp ci programme candidat yi ci wàll woowu lan mooy li nga xamante ne moom ngeen prévoir par rapport à ce secteur bi nga xam ne pratiquement bu jiituwul it moo tegu ci économie nga xam ne moom moo lal vraiment comme comme réew euh, euh, ci loolu itam. lan ngeen prévoir ci fa nga xam ne moom mooy zone suite nga xam ne dafa nekkoon ci conflit. ñu yëkkati woon it ci biir septennat bi su dee mën naa ko wax amnistie fiscale fan ngeen ci toll d'autant plus que ba léegi dañu gis ne taxes yi ci hôtel yi dafay gën di cher te clientèle bi euh, xaw a dese. Birame Souleye le candidat de la coalition Sonko président tey jii je sais pas à tort ou à raison mais ñu ci bëri dañ ko jàppee le candidat de l'antisystème te wax anti système amna le une volonté ferme que les gens se départissent du franc CFA euh, lolu naka lañ mëna def ba am ci solution ci franc CFA étant donné que le nañ Sénégal fi mu bok ci réew kii réew yi nga xamantene ne Sénégal mom la lëkkalool ñuy grande puissance yi nga xamne ne dañoo ngoy ci li nga xamne moy mooy franc CFA bu ci melni France ak yu demee nonu mhm. ba léegi ñu leen di gis ñuy duggal seen loxo ci biir Afrique rawatina fi ci biir Sénégal. benen bi su ngeen ko permettre moy une question nga xamne yeen yéen la concerné yéen ñaar parce que yeen seen candidat yi taxaw nañu te ci seen diggante à travers li nga xamne moy l'inspection des impôts et des domaines wala des domaines yëkkati nañ fa mbirum xaalis bo xamne dafa tollu ci 95 milliards. Euh, seen candidat moom moo ko yëkkati Sonko mu tuumaal kenn koo xam ne moom directeur de domaine te buñ ko toppee ça interpelle au premier chef le candidat sortant Macky Sall mbir moomu ñii ñu ngi naan euh, euh, commission d'enquête parlementaire ñii ñu ngi naan ki ñu tuumal mooy leeral ki tuumalaate mooy leeral ndax la yéen sooraale ngeen ko ci campagne bi ak kan ngeen jàpp ne moom moo war a leeral mbir moomu ci askan wi nga xam ne jot nañ ko it mu up seen bopp moy sen ñaari question ñaar. voilà légui dañuy permettre ñom ñaar rek euh, la parole est à qui veut la prendre monsieur le ministre comment cest commencé ci yow mais ñu calibrer trois minutes pour chacun donc pour nous permettre ñeneen poser des questions, pour permettre aussi le public de partir d'autres d'autre aussi ñu réagir donc vous avez trois minutes. oui merci beaucoup tout juste nous euh, nous fatalé ni que économiste économiste lañ laaj croissance je ne suis pas économiste. je suis désolé je ne suis pas économiste. D'accord. non je ne suis pas économiste du ah, tout alors. bul trois minutes non jamais. Yo, yo, yo. Yo, mer non la ilaha illallah ministère de l'économie et des finances formation inspecteur inspecteur du trésor xaw inspecteur des impôts bi nga xam ni war na xam dara ci croissance bu 1,7, un virgule sept egg amul impact ci réew mi loolu dañuy jàpp ni ku ma ko wax beneen bi soxna fait en fait tourisme jafe-jafe bi mu dundoon bi metti depuis histoire du Sénégal Tibir histoire au Sénégal n'était pas lié au gouvernement nous on a ñun fay fait. Nous avons que wax lolu worul Nous choléra Sénégal 150 Ebola Sénégal 150 000 réservations arrêtées saison bobu doon saison bu man nañ wax bu nul ci réew mi te pourtant ñun ñëpp seede lañ ci ni que wax dëgg yàlla Ebola dugg fi woon donc loolu mooy crise bi gën a metti tey jii nii déggoo hôtelier wala tour opérateur buy wax ni que secteur bi doxul amul amul aujourd'hui prévision yi ñu defoon romb nañ ko de 9 pour cent hôtel yi fees dell lañ def le président def tourisme Ben Mandar le lay jox président daf ni hôteliers sénégalais ont la renforcer ñu créer crédit hôtelier aider hôteliers nous ñu def mise aux normes fexewaat wat, li méngoo ak qualité de service yi am le crédit hôtelier moo def il y'a au minimum 27 entreprises sénégalais qui bénéficient du crédit hôtelier bob, benen bi créé créer station balnéaire bu parce que Mbour commencé nay maguettes, il faut que ñu def requalification bi ñu théoriser Pointe Sarène finaliser ko 90%. 90% tour tour opérateur bi ci bi préparer tabax 1500 chambres parce que nous suñu tourisme problème capacité la am bo jëlé Casamance taxi, yi taxe tourisme président daf ko le 18%, a fait 18%, TVA 10 pour faire que cas Casamance masse investissement pour tourisme il faut défiscaliser réalité le, gisagoo vous fa jóg di hôtel di taxi amul donc le le tourisme réglé le problème taxi mais bu vous Casamance <coughs> problème de gën la nga dem Casamance dem tey boy dem Casamance problème ou euh, enclavement au Casamance c'est réglé am nañ compagnie bo xam ne momal suñ moomal bopp avion yaa dem di desservir tay pour nga dem Casamance bo daan def 20 jours bo daan def ñaari fan Gambie ci bac bi tay da ngay ñew romb trente cinq minutes dem donc ñu wax problème travailleur yoy ngay wax problème texte la indépendance ba 2018 Sénégal amul won ben texte buy réglementer secteur bi. d'accord accord de suivre 4 minutes 3 minutes 58 secondes d'ailleurs permettre Guillaume soleil peut-être nous réagir par rapport à euh, question de Cheikh Bamba euh, la question du français. waaw la question du français xam nga euh, Cheikh Ahmed le français est fort. naa léegi na la économie boo mais de de économiste hein nga vous parlez d'économie alors que vous n'êtes pas économiste Il y a une économie t'es pas économiste donc vous nañ cee wax ah? ils veulent ils veulent instaurer la tyrannie de la connaissance ils ont l'habitude lou, am c'est une question technique c'est une question technique Vous je ne suis pas économiste Vous mais je parlerai de l'économie parce que je suis citoyen je suis libre d'apprécier Donc, nous leen dañ ciy wax du dëgg kon bàyyi leen wax ci économie daf ma pas. donc sur l'économie cher Bamba sur l'économie xam nga dama je léegi dama koy baamuwaat non ne lui en déplaise économie beaucoup ko bëggee il ñetti levier nga am le premier levier c'est la monnaie le second levier, c'est le budget, les ressources internes. Et le troisième levier, c'est l'endettement. Walou, monnaie, nous, sommes monnaie, on n'en a pas la maîtrise. Pour la bonne et simple raison que, nous savons l'histoire du franc CFA. Tout nous avons une monnaie, nous avons une monnaie indigo fille nous avons franc des colonies françaises d'Afrique. qui qui ils avaient juste des derniers échanges de tourbi mais principe bi ci nek ci ça leur permet d'avoir une emprise sur ñun économie et de faciliter ñom intégration un investissement dans notre économie cette intervention sur notre économie. je rappelle que si wax les réserves de devises nous nga xamni France da koy qui aujourd'hui égale à 50 du temps c'était à 65 pourquoi on peut poser le débat et discuter parce que c'était à 65 quand le président Abdoulaye Wade très visionnaire a levé le débat ils ont accepté dañoo nangu jóge 65 dem 50 c'était un premier pas mais liñ wax ñun ci walu monnaie bi dafa ni dañu wax ni il faudra parce que BCEAO bi buñu togué ci conseil d'administration bi la France dafa am pouvoir de décision moi j'enseigne le droit bancaire dañu wax ni dañ ci génne France liñ ñu ko wax moy on va négocier discuter une discussion sérieuse pour gagner France de la gestion de notre argent la sortie, la sortie définitive du CFA, c'est une étape N dans long processus de progression qui nous permet de tenir notre monnaie. buñ ci génnee ñun ñooy xool suñuy intérêt fu mu nekk déjà kenn du des chambres, ci chamboulan fañ koy fañ koy tëggee duñ ko fentee di parce que alal joo xam ne yaa ko moom te amoo droit dessiner ban couleur la tànn ban couleur la wala nu ñuy bind 5 ba ab tubaab moo koy décider moomuloo ko. boo exporté boo boo exporté pour 10 milliards bu xaalis bi 5 milliards mooy dellu si parce que France a été 5 milliards te boy leb France mu lebal 5 milliards yooyu génn ci ay taux d'intérêt. Non, noo on dit li ñu wax mooy li wax il nous faut nous l'approprier en discutant au niveau de l'UEMOA ba génn ci France et ñun ñu décider. maintenant bu fekkee ni nag discussion yooyu ça n'aboutit pas il faudra assumer la capacité parce que Sénégal ñoo ko wax légui am nañ xam-xam am nañ compétence ñi ngi jang monnaie ñi ngi jang crédit ñi ngi jàng thermonucléaire. mais mais nee nga lolu en fait bi nga introduire nga dafay reposer ci économie bi ndax économie Sénégal fi mu tollu tay ni te sank ñu wax ci taux de croissance bi euh, euh, maanaam euh, souveraineté bobu ngeen bëgg am ci monnaie bi ngeen génnee ci loxoy maanaam la les grandes puissances comme la France ndax yaakar nga né dinañ ko. waaw loolu la doon wax loolu la doon wax tey ñu on a suffisamment d'experts en connaissance monétaire. pour administrer parce que marocain yi yor seen monnaie Mauritanie bii yor seen monnaie Guinée bi yor monnaie Gambie bi yor monnaie côté kii euh, Nigéria bi yor monnaie wala Ghana bi yor monnaie mais mënuloo ma wax ni ma ñoom ñoo gën a bëgg seen dëkk wala ñoo ëpp connaissance ci wàllu tey xaalis ba bañ ko tey ko def ñu mënuñu ko bu fekkee ni bu fekkee ne dañoo nangu ni ñoom ñoo ñu ëpp xam-xam mën nañoo téyel seen bopp seen moone ñoom te ñun amuñu xam-xam boobu bu yeboo ngeen arrêté tël su seen candidature Macky Sall na bàyyi candidature am bu mu nekk candidat bàyyi ñu yoon bi ñu dem ñun kese maintenant maintenant sur la question de 94 milliards xam nga dañoo wax ni xam nga affaire bi bëgg coow la foo xam ne fi coow amu fa parce que ki déposé plainte nee na man lii laa gis lii laa gis dem seeti procureur dem seeti OFNAC dem seeti IGE déposer foofu plainte ak tous les éléments tous les éléments ba pare taxaw di xaar ba pare wëlbati ko ne procureur waaw wooteel wooteel ñu àtte ñu mais kooku kay bañu lu leer ensuite ensuite ensuite mais il faut aussi. Euh, boo may euh, permettre Cheikh Ahmad Bamba peut-être bala oui commission d'enquête euh, parlementaire vous voulez parler. épuisé 3 minutes 58 ah. secondes. d'accord ba 1 minute. 9 secondes maintenant on va permettre 1 minute 9 secondes monsieur le ministre vous répondre un peu par rapport à cette affaire là Bala, Cheikh Ahmad Bamba di On bah, va relancer <laughs> allez-y. na Monique, FA. c'est que bu nax ñoom seen programme li ñu ci wax mooy sortie graduelle waxuñu dara liñ waxul nit ñi mooy sa monnaie bopp ku koy ut da ngay dem boo demul Union européenne da ngay dem trésor américain nga déposer fa or bu ni toll pour calibrer si ci sa monnaie loolu waxuñu ko nit ñi li ñu waxul nit ñi mooy tey jii nii boo doon génne Sénégal ci franc CFA da ngay jël or bu ni toll nga dem ba indexé ko ci euro de mais ci dollar nga koy indexé nga dem trésor américain nga ubbi fa compte teg fa or bi ñun suñuy ñi ñu dëkkal ñëpp nag gis nañ leen suñ mbokk Gambie yi ku ciy faj sa soxla à l'étranger da ngay ñëw fii ut CFA suñ mbokk Mauritanie suñ mbokk Mauritanie ku ciy faj sa soxla à da ngay ñëw fii ut si CFA man ma dama bañ franc CFA wala dama ci ànd wala ànduma ci ñun njariñu réew mi la ñuy xool ak njariñu économie mën nañu jox suñu mais bu nous dem à l'aventure rek parce que ce c'est pas parce que nous réfléchissons. comme nous mu leen ko bëgg a waxe ñoom ci xalaat la nous toll ñoom ñoo ko wax li ñu bind dañu tëju ñaari weer nee nañ dañoo tëju réfléchir ba fii Sénégal toll munoo fi wax ay naa ci génn nag duma ci génn yéen ci seen biir d'accordu leen ci boo nee dangay génn ci monnaie da ngay wax nan nga ciy génne tey jii nii boo ni woon génne naa réew mi dem uti kuri euh, nga tudde ko kuri Sénégal xaalisu réew mi xaaj nga ko ñett wala ñeent ku ci nekk sa am-am wàcc na premier jafe-jafe bi ngay am mooy nit ñi mënatuñoo tukki dem jëndi est-ce que dañuy dem comme ay doxandéem

Moi, est que cette histoire là la vérité Moi, est que wax jojo waxi ñaari sénégalais la yo xamni ku ci nek sa yeufi bop la. ah mais kenn ki aussi ci administration la bok xaaral rek déedéet bim ci dugg ci ciow lolu fekk na ñu dàq ko ci administration. motax mani ñaari sénégalais yu bok fële la lolu moy deug mooy ñaari sénégalais yu nekk ci biti ku ci nekk yor sa business ñoo am problème leneen li ci am nguur gi mooy nguur gi nangu na ni ko ameel na bor kii dem njëkk jënd bor bi kii bëgg jaar ci suuf bëgg njoolu bor bi xaaral keneen ci bëgg njoolu bor bi député la am na parti day wax rek pour yàqal kële mu dem daan ni ñii ñi ngi luubal mu ni ñii ñu ngi luubal waaw ba muy dem ci procureur demu fa ak turu bopp ba ba muy dem ci famille bi pour négocier pour jël yëf yi. ah négociation am na. Ah, si négociation am na ay am na ay enregistrement yu gën li ñuy njëkk a wax mooy moom moo toog ci tele daan ni entreprise am bokk ci wax entreprise bi mu moom ni moom musul gis waa famille bi moom Ousmane Sonko mu ni musul gis waa famille bi ñu toog ba ci yàgg ñu wane feuille de présence. feuille numéro 8, la document yi wa famille bi mom mu signé ñu togaat touti ñu son bo son bo ne ndax amna wala amul xamuma duma wax mais en tout cas dégg nañ ci ay kàddoom mom mo waxul xamul famille bi ñu des keuyit bu mbokk ci réunion mom famille bi ñu wax bu mu am timi ci limi def yoonu commission bi bor bi ñaata lañ du koy décider gouverneur commission léegi nag boo bëggee politiser dem assemblée pour créer pression mais kooku sénégalais yi ñooy àtte li am ba wóor mooy que ñaar dërëmu état du Sénégal génnu ci lu 3 milliards ca bor bi état du Sénégal moo amel. ameel. famille jàmburu famille jàmburu di jënd léegi nag boo bëggee utiliser di wax di wax ba wax ji depp sa ginnaw li ci am lépp mom mo waxone gisul famille bi gis na famille bi mom mo waxone da doon def fi sabilillahi gis nañ ni ko da doon ut 12 milliards mom mo waxone ni ko fekkewu ko génn nañ enregistrement sonore man ñett yooyu laa ciy xool ndax jub na wala jubul procureur yoonam nekkul ci ñaari sénégalais yu privé yu am seen problème tant que kenn ci ñoom demul porter plainte moom bu bëggoon lu leer day ut mandat famille bi mu dem porter plainte sénégalais bi ci am D'accord, monsieur Mais pour que deux minutes et 30 secondes. On va permettre à Biram Souley question ba mu tont ci balaa ñuy jox euh, sa ñeneen naataango yi ñu poser question bi. waaw xam nga sur le point euh, il est bon de rétablir la vérité des faits. xam nga ordre li am il est bon de l'établir li tax il est bon de rétablir la vérité des faits c'est simplement que euh, situation bi dépose plainte mi dépose plainte le 10 avril 2018 ñoom ñi nga xam ne nous ci bureau la ñuy dugal ay enregistrement di xool li nekk ci bakkanu jàmbur yeeg jaboru jàmbur yeeg nangam lu ne ñu koy saytu ñoom ñoo def seen enregistrement di wut et cetera mais biñ ko la déception parce que dañ ci doon yaakaar fekk ci luy tuumaal suñu waa ji fekk ko dañ doon yaakaar fekk ko ci dara amu ci ils ont reproché ils ont payé 35 millions de francs pour am enregistrement comme comme comme ils le font en général parce que ils ont appelé ce jeune triste là nga xam ne ci Abdourahmane Balle ils lui ont proposé beaucoup d'argent pour mu tuumaal suñu waa ji il a refusé de le faire il a fait sa déclaration Il li ngeen may defoo du ma ko

mais procureur na génn bok ñu à moins que à moins que ñu dem inspection générale de l'administration judiciaire ne ko nañ dem seeti ndax procureur carte parce que bu fekkee ni ku fekk bu fekkee ni bu fekkee ni bu fekkee ni ku dul ci ñoom sëy mbir dara du ci yàgg sëy mbir dara ci kuy kuy ñu wax li ñuy def li def du commission mi affaire mi commission parlementaire nag xam nga li tax mënut parce que commission parlementaire yoon bu diree conclusion am fa muy mujjee ji mooy au niveau du procureur wax jiit na leen procureur Je wax ju bëri may terminer pour wax ni alors ce point là est un point important et dafa wax ni ñaari particulier c'est absolument inexact du ñaari particulier parce que kenn ki c'est le directeur des domaines moi je n'ai absolument rien contre lui xamuma ko siqam ak moom dara su ma ko rombee xàmmeewuma xàmmeewuma ko administration donc je n'ai absolument rien contre lui mais d'abord ni situation bi lui il est directeur de demain. il n'est pas interpellé comme un particulier il est interpellé comme quelqu'un qui a reçu un mandat de l'administration pour agir au nom et pour le compte de l'administration il a engagé d'être une précision et pour terminer pour, terminer assemblée nationale nous bëgg def lu Nous rek dañoo bëgg commission d'enquête parlementaire bërki dem ay sénégalais djogé nañ fi ndar dem cap nekk ci ay gaal de ci biir gaal gi ministre bi yor seen seen wàll taxaw nee na koor ya dañoo yàqu benn Sénégalais bu nekk foofu topp mbir mi ba dem fekk leen ci morgue yi leen denc gis ni koor yi dara nekk ci moo famille ne leen jël leen seen i biir ngeen ñëw fii nañ def commission d'enquête parlementaire lu tax ministre boobu waxul dëgg kooku jarul commission d'enquête parlementaire d'accord ndax bu bu ñu toppoon bu ñu toppoon li mu wax bu ñu toppoon mission la mu wax ñu ñu sukkandiku ci ne dëgg la néew yooyu du ñu egg si maanaam baam du ñu am bàmmeel bu ñu leen tudd Sénégal pour defal leen Fatiha Salatul Fatiha non je termine en deux ans sur deux éléments temps bu ñu yokk ci yow la euh, ArcelorMittal mhm. sept mille Abdoulaye Wade wax na fi démb sept milliards ndax dafa am ko xam dafay taxawoon déclaré huit milliards ne ne sept milliards dañ ko koo may léegi nag may wax leen Sénégalais yi ku mën a may sept milliards doomu jàmbur war ngaa mën a may cent milliards sa doom moom moo taxaw ñu laaj milliards yi nga fu mu jógee mu ne Abdoulaye Wade moo ko may xaw ma lu xew mais en tout cas 7 ans après Abdoulaye Wade ñëw ne neen mosu may nañ def commission d' enquête parlementaire. am ñaari kilifa Rosalie et à. Sambar ñu euh, euh, juste dire que Biram batay tontogul sama laaj. Mhm. paradoxe bi. par rapport ak Sonko bi nga xamni dem na wuyu ji Abdoulaye Wade alors qu'il est le candidat entre guillemets de l'antisystème. waaw donc vous l'appelez candidat de l'antisystème xam oui non il n'y a pas de problème ça ne me dérange pas hein, du tout. il a dénoncé l'ancien système et puis Wade est considéré comme membre du système. d'accord oui d'accord xam euh, tay dañoo créer parti pour l'imposer pour l'imposer dans le landerneau politique sénégalais tay sénégalais yi ñooy daw di ñëw li tax suñu parrainage yomb bu ñuy wëri gars yi dañuy tax ñoom ñu naan yéen la ñuy seet loolu moom ñun dañ ñoo ko am <laughs> waaw alors ce qui se passe concrètement ce qui se passe concrètement c'est que on a rencontré on a rencontré tous les leaders de l'opposition comment nous, vouloir nous interdire de rencontrer un leader de l'opposition Khalifa Sall Ousmane Sonko s'est à plusieurs reprises Idrissa Seck rencontre Ousmane Sonko à plusieurs reprises d'accord euh, Abdoulaye Wade à quel moment... d'ailleurs il y beaucoup de Fonds national de l'opposition ça ils suñu organiser manifestation C'est opposition Nous sommes en dox Nous sommes en wax ni une élection transparente nous on n'a pas de problème élection transparente ce Max Sall gagné on viendra lui dire yàlla na la yalla dimbali ndax dañu bëgg Sénégal dox mais pour ce transparent donc foofu un problème alors aujourd'hui que Ousmane Sonko a rencontré Abdoulaye Wade pourquoi en faire un drame politique su fekkee ne Abdoulaye Wade tey ñoom ils sont en train de créer un bâtiment administration sénégalaise def ci fauteuil bàyyi photo Abdoulaye Wade bu ñuy bu le musée on ne cite pas le nom d'Abdoulaye Abdoulaye Wade fi mu toll nii sax bu ñu sañoon alxam lañ mais alors Abdoulaye Wade a été un président de la République du Sénégal pendant 12 ans. Merci, Et, à euh,

Euh, wala bok ñu am ci jiixi jaaxa ci fond yoyu mhm. euh, bu dëkkee ci li nga xam moy sen fond campagne provenance bi fan la joggé deug deug ak ndax deug amna ci lolu wala déet amna ay fonds yu jote joggé bitim réew financer campagne. de l'histoire politique du Sénégal nous sommes le seul parti financé intégralement par ses militants. <laughs> de manière de manière très transparente. vous êtes parti en campagne avec combien. waaw non waaw ma ñëw rek. ñaata dama ma ñëw rek nous sommes de manière très transparente nous avons lancé l'opération Bokna. Des di sénégalais 500 francs di laaj militant 500 francs Nous avons ci diaspora bi moom diaspora la lancé l'opération Bokna. d'accord Nous avons lancé l'opération xaalis dimanche passé bu ngeen suivre une campagne on n'a pas pu parce que nous avons dem Kaolak à 8 h on n'a pas pu le faire parce que nous n'avions pas d'argent mais non par jour par étape on en est fier parce que ce qu'on dit ce qu'on dit à nos militants euh, est-ce qu'on peut être plus dans la salle s'il vous plaît. allez-y ah? Mm-hmm. Ah. Ah, non non non du tout. Mm-hmm je veux dire une chose xam nga ñun on est transparent gis nga Macky Sall bañ na Ousmane Sonko bañ goo xam ne bu amoon lu toll ni tarfatal ay ni lu mu koy tëjee kaso damm caabi ji sànni caabi ca ginnaaw gore def na ko fan cinquante fois. dégg alors alors tey tey ñu ne ay fonds russe ñooy ñëw waa ji nee na sax sous 48 heures la mais moom ou bien il est inintelligent ou bien il est trop pressé. parce que koo xam ki kii candidat la yow pare nga pour tëj ko kaso mais bàyyi ko mu indi xaalis bi comme xam na ñaari mallette la xam na couleur mallette yi xam code mallette yi xam na bi nek ci biir ñaata la mais bàyyi ko mu teg ko nga jàpp ko doon doon aux frontières doon aux frontières am na bi du jaar fenn fu dul ci frontières yi parce que xaalis bi kenn du ko sànni ci terrasse muy taw ci frontière lañ koy jaarale waa douane ñu ngi fa nañ joxe information ak signalisation bi bu ñu ñu jàpp ko jàpp Ousmane Sonko yóbbu ko ci kanam yoon ne ko da nga fay dugal xaalis bu du wérul yaa ngi dégg alors jiñ nañ ko fi tam nañ ko fi dëmm nee nañu rebelle la bañ nañ ko bëgg dem dégg nga un président de l' nationale vice président de l' assemblée taxaw nee na képp ña nekkoon ca meeting Ousmane Sonko ñëpp ay rebelle lañu. loolu foofu la ñu dëkkale mais duñ ñu fa yàkkal li ñu fekk en tout cas li ma la mën a wax mooy ñun bëgg dem diaspora bi mobilisé na 67 millions dinañ ñu ko yónnee ñu leen ñaan monsieur le ministre bàyyi leen xaalis boobu s'il vous plaît avant Samba di wax peut-être euh, boire une question par rapport à ce que vous avez dit la pour monsieur le ministre parce qu'il y a 4 minutes 58 euh, secondes pour le ministre war na ko mën a voilà. c'est que man dama un problème. biram Souley, inspecteur du trésor Birame Souleye munoo wax lii mun leen wax lii c'est-à-dire kon vous yéen a ngi que loo xam xamu leen fu ngeen koy yóbbu yéen yéen a ngi xëccoo loo xam ni xamu leen ko parce que li ñu fi wax nii yëpp day wane ni que xamoo état. Birame Souleye état nekkinu askan bi lay lijjanti. 15 millions de sénégalais ngay décider seen dundin nan lay demee du ay fo. du ay fo. du ay taf yëngal wax fii wax fële indi directeur du domaine du laal xaalis xamul fan la di dem ci commission lay gouverneur mooy fixé boo demee di porter plainte kenn waxul kenn kenn Ousmane Sonko moo 94 milliards Nous vérifions 94 milliards génnul ci keesu état bi problème privé expropriation bi ci jamonoy président Diouf la Ousmane sonk moo ni day def fi sabilillahi ñu wane ni que mi ngi woon ci biir lan la ñuy doy enregistrement ñu moom moo taxaw ci sénégalais yépp moo toog 2STV ñu ni entreprise bi nan la tudd mu taxaw tiit ni non man moomuma entreprise boobu Atlas laa moom ñu dem gis ni que Atlas moo si signé mu ni musul gis famille bi ñu génne réunion bu mu bokk du ñu ñoo ko wax ñu ngeen di xëccool ak famille yi ngeen di xëccool ñoo ko wax ngay muy porter plainte bind turu Pastef bindul turu entreprise bi te entreprise bi mo demone di jema jënd bi muy porter plainte et puis li ngeen waxul nit ñi génn leen plainte bi am contre X la bi defu leen ci Mamour Diallo de. c'est absolument faux. contre X la te Pastef et la courtoisie de m'écouter tout à l'heure si tu m'avais laissé te rétablir la vérité. kon kon dina la ko may nga def ko. y a pas de problème. bu leen nax nit ñi. ngeen jóge 94 milliards ni 45 milliards taxaw ci kanamu sénégalais yi nii que am ngeen numéro compte génnewu leen ko nañu bàyyi salfa boobu loolu yéen a ko wax ci yéen la egsi ci yéen la tombe yéen a jiiñ affaire bi wëlbatiku ci yéen yéen a am explication yu ngeen wax ak sénégalais loolu mooy benn beneen bi assemblée nationale mënta créer commission d'enquête pour président de la république yow xamoo état yow yaa ngi xëccoo état yow yaay numéro 2 wu Pastef tey jii Ousmane Sonko cas extraordinaire tey yow la di nommé yow xamoo ni que assemblée nationale. président du fa teg tànk. xamoo ni que assemblée nationale man ministre bi sax am na circonférence boo xam ni ba pare ngeen di laaj réew mi nañu bàyyi foyi avenir ñii la ñuy lijjanti. ñii dans vingt ans dans quinze ans nañu bàyyi waxu populiste yi. nañu bàyyi ay ay ay taf di créer conditions xam ngeen lan lañ leen wax ngeen wax nan ngeen des saafaraa Nous xale xam lan lañ leen wax ngeen wax fan ngeen jëme xam lan leen wax ngeen wax ñun def des conditions. Nous ak lan ngeen leen di di créer di Nous ngeen dem ba ci biir di wax ay dañ leen faire. document bi génn tout le ooy ngeen nous on est des responsables entreprise nationale bu côté bourse entreprise internationale bu côté bourse nga xam ni bu la lié ci scandale ce code day tu perds des milliards ñu accuser ko est ko moo jox candidat pour mu bind livre ça ñu nous ni xaw ma lan Petro-Tim kërëb kërëb démb bi muy gis Ablaye Wade waroon na laaj mu signé ak petro team moi c'est ça que j'attendais de Ousmane Sonko hier bi muy gis Ablaye Wade mu ni ko lu contrat bi lié Tim ak état du Sénégal yow yaa ko signé ak Karim Wade laaju ko ko Ousmane Sonko moo toog ci télé ni Karim woo na ko moom jëlul parce que est contre le système xawma lan ak lan ak lan ak lan après mu dem ci Ablaye Wade kenn neewu ko bul dem même moom wax di dindi moom mooy wax du am moom mooy wax weddi di am mais man loolu du man maa koy jugé sénégalais yi ñoo koy jugé Birame Souleye wax ñu bu ngeen jëlee réew mi fan ngeen koy jë fi ngeen koy jëlee fan ngeen koy yóbbu ak nan ngeen di saafaraa problème mu booy yi ak nan ngeen di saafaraa problème mu bay bi ak nan ngeen di saafaraa problème mu euh, paj mi ak wax leen ñu lan ngeen nar a def ci réew mi moi j'ai compris ni que yéen xamu leen fu ngeen jëm parce que dëgg la da ngeen tëju rek tëju ñaari weer nag. du jubbantiwul réew y arriver ñaari nous une solution ci réuni. mi tëju ñaari arriver après di wax un discours populiste ay naxaate la soyons sérieux il faut être sérieux vous ne pouvez pas être à ce niveau de responsabilité être le numéro 2 d'un parti conquérir le pouvoir nek candidat de Djogante réew comment est-ce état a lay fonctionner c'est ça qui est désastreux c'est ça qui est désastreux le désastre réside ci que qui ma dit ni di nee na inspecteur impôt la xamul nan la état di doxee xamul ni que directeur u domaine du fixer montant xamul ni que directeur domaine yo xaalis amu fa xamul ni que directeur du domaine ay kayit lay gérer. d'accord monsieur le ministre. et yéen a wax. ñu bàyyi kàddu gi. non je suis dans mes cinq minutes. yaa ci yaa ci def nga ko def nga quatre minutes kon 58 secondes kon des na jeex na jeex ci yow tout à l'heure permettre Samba Ardo me poser question waaw ñu des un peu ci Wade rek pour rebondir un peu ci question Rosalie bi euh, Biram euh, Wade en fait ci ay temps yu gàtt nii am na ay kàddu yu ñu prêté seen candidat ay phrase assassine sax laay wax yi waxoon fi ne dañuy fusiller chef d'état yi fi jot a jaar yëpp dem ngeen rencontrer Abdoulaye Wad. est-ce que nekk ay propos yoo xamante ne tey jii ko regretter Wade di monsieur le ministre appel au boycott le 24 février est-ce que y touti ñakaré ci élection yi euh, baña nek élection yu Sénégal. en tout cas en tant que gouvernement nous nous sommes donné les moyens appropriés pour que euh, ci le gouvernement Maintenant, ci parce que ministre là, ci gouvernement là bok gouvernement jël na jumtukaay ak pour que élection yi am ci jamm jeex ci ñu fal ki ñuy fal président ci jàmm ci wàllu politique man militant la ci parti la bokk mouvance présidentielle la bokk jël nañ jumtukaay yëpp pour battre campagne ci jàmm gagner ci jàmm gérer waat ci jàmm keneen ku fi bëgg indi leneen incha allah wax dëgg yàlla di nga fi fekk. les gros bras. non di nga fi fekk yoon <laughs> keneen ku fi bëgg indi leneen di fi fekk réponse politique bu appropriée. parce que ñun du ay amateur duñ nekkuñu ci affaire enfantillage nekkuñu ci affaire fo affaire par parparloo li ñuy def dañ koo xam réew mi dafa am fu fuñ ko fekk am fu fuñ ko indi am fuñ ko nar a yóbbu fiñ ko nar a yóbbu wax nañ ko sénégalais yi xayma nañ ko ñiñ ko war a jox waxtaan nañ ak ñoom joxe nañ seen accord defuñu programme boo xam ni amul cadrage budgétaire defuñu programme boo xam ni amul déclinaison géographique amul plan d'exécution ñëwuñu toog ci nit ñi di naxe kese ñun boo ñu laajee ci wàll boo ñu laaj même bu fekkee metti na dinañ la wax lii lañ fi fekk fii lañ ko indi lii lañ ci nar nan lañuy ñuy jógee fii ak nan la ñuy eggee fii ñeme nañ koo wax mais li ñu mënta nangu mooy toog sa ruq dem tëdd tëju sa néeg gént say gént dem génn mu ñu la bi ñu la non c'est bu tayee nga ni ñii jaay nañ pétrole bi bu subaa nga ni ñii jox nañ leen lii bu gannaaw subaa luñ ci vérifier mu doon ay naxi kese kii toog ak man fii di wax firnde ni ko xamul état biñ ko fi jiiñee xaw ma dafa tiitoon xaw ma lan lim njëkk a def gendarmerie lañ wax ni ko la wax ni ko moo ko lim njëkk a def mooy ni ministre de l' intérieur daf maa bëgg a rey munoo jiite réew mi munoo bëgg a réew mi te xamoo ni que gendarmerie dépendrul ci ministre de l' intérieur mën ngeen ko jàppee ay fo mais état du fo état du caaxaan du ko jóg rek dem taxawaalu sol sa mbaxane fii dëpp dëppal fii du loolu du loolu ñun fawuñu fawuñu il faut que nit ñi xamni que affaire yi du ay fo il faut que nit ñi xamni que affaire yi du tok ci réseaux sociaux di saaga il faut que nit ñi xamni que du ay inventé ay chiffres après wax fi buñ la jappé fi nga daw feulé amul entreprise de renom comme entreprise bobu ñuy wax bu ñuy lolou ngay démentir facebook ak twitter soyons sérieux entreprise bo fi dem djign wax yoyu 20 avocats bu féké amul bu féké 20 avocats la ñuy ce sa d'autres de tëdd à ci mon procès parce que c'est des milliards qui sont en jeu monsieur le ministre euh, épuisez nga 3 minutes Maël Biram Soula. non mais moi, bu 3 minutes Donc nga koy bàyyi mu eggale argumentaire monsieur le ministre y a tolloo temps man chronomètre laa allez-y allez les téléspectateurs qui nous suivent aussi peuvent en euh, témoigner allez-y Biram, un peu par rapport à ces interpellations waaw xam nga Alors Abdoulaye li mu wax pendant que la campagne électorale est ouverte Qui fi qui ki c'est un candidat parce qu'il a dit 7 milliards en tant que candidat à l'élection de la République. situation bien ñu interpellé il est candidat il faut faire la distinction entre le candidat Macky Sall et le président de la République il a été interpellé comme candidat parce que celui qui fait sa déclaration de patrimoine c'est le candidat ce n'est pas le président de la République yow yaa xamul état yow xamoo dara ci état yow malgré que ministre affaire bi da nga wax ni du affaire sol sa sol sol wala du da sa taxaw di wax neex en fait loolu quoi waaw non li may wax li wax non. s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît bailen leen ko mu daaneel euh, allez-y ñu gën koo kii rek ñu moytu. non c'est que personnaliser le débat non non mais attends man maa sol baax ah. allez-y allez-y man maa fait toog di wax. d'accord waaw bon? waaw alors waaw mi ngi merci beaucoup merci. <laughs> xam nga ah mais ministre mi ngi fomb aussi tamit de xam nga euh, ba pare bu ñu wax ne euh, euh, Karim Wade dafa Ousmane Sonko Ousmane Sonko bañ ko jox xam nga Ousmane Sonko lan la ko wax il n'a jamais été question il n'a jamais été question li mu wax moom Ousmane Sonko dafa wax ni Karim Wade il est à l'étranger C'est li ñuy xeex fii Sénégal Sénégal la nekk il est prêt à discuter avec lui à la condition qu'il soit dans ce pays-là c'était la condition pour laquelle mu wax ni donc Zafor non dama ne wax ma lu ensuite ensuite ensuite deux mois deux mois sànq ba léegi mi ngi wax naan deux mois la ñuy bind programme wala deux mois la ñu tëj ci biir nekk je pense que dafa dafa jaxase plateau yi parce que bërki démb il avait un plateau avec Abdourahmane Diouf qui a dit moom mën nañu ne expert ci PSE ñu tëju sérieusement sur trois mois ñu proposer mieux que le PSE foofu la fa lañ ko waxee woon Abdourahmane Diouf loolu la wax mais programme bi ñuy indil ñu Sénégalais yi fii depuis très longtemps 1400 personnes du Sénégal et de la diaspora Sont ngi ciy biñ ci on a appelé des experts indépendants on a appelé des experts indépendants Collègues nekk ñu jox la ca des experts indépendants donc li nous indi ñoom C'est jàpp ni la mais le 24 février mi la vérité se fera par les urnes affaire jarul jarul jarul

nous yéenante d'accord on être dans des contradictions vous avez épuisé vos trois minutes. Ah, vous en avez même rajouté 12 secondes. on va permettre à Marguerite Rosalie Ndiaye Cheikh Bamba et aussi à Samba Ardoba aussi. Vous interagir quand, quand, vous voulez. Hein. Très bien. D'accord. Voilà. Bonsoir. Juste euh, une question par, pour Monsieur le ministre. Euh, que le Djem Tiwalum d'air, entrepreneuriat rapide. Mm. Euh, nous avons gagné. L'entrepreneuriat a le temps entrepreneuriat yi rapide mënul am te expert yu bari wax nañ ko yéen tey ngeen di prôner entrepreneuriat rapide fan ngeen ci toll ak itam ñaata entreprise wala ñaata personne ngeen poussé à cet entrepreneuriat rapide là. également par rapport ak autosuffisance en riz nee nga sànq atteindre nañ ko euh, Macky Sall mu ngi joxe rendez-vous en 2017 pour ñu mën ko atteindre et jusqu'à présent tel n'est pas le cas euh, dégg nañ ko keroog aussi ci campagne bi mu wax lu ci jëm euh, pour pousse à ce que ñu ñu mën a rek yegsi ci boobule autosuffisance c'est quoi le problème et qu'est-ce qui bloque concrètement euh, Birame Souley. Euh, après ci wàllum euh, carte d'identité biométrique yi nga xamante ne ñu ngi en souffrance ñu ngi dormir gars yi ñu ngi woote pour ñu ñëw jël si ko yéen ngeen nekk ci wàllu opposition bi bëgg a dagaan battu askan wi bëgg ngeen aussi nous bëri est-ce que faut aussi warul que c'est une base de politique et une période de campagne pour pousser euh, les gens à aller récupérer cette carte d'identité ak seen carte d'électeur ndax buñ ko aussi euh, ça ne sert à rien de nous voter monsieur le vous pouvez. merci merci madame. en fait pour Derby, ce n'est pas que nous ñi nous entreprendre c'est parce que euh, nous dañu xam xam nga li ëpp ci réew mi li li ëpp ci réew mi surtout ñu nekk dans le monde rural boo xoolee ni ñuy peut-être di ngeen mën comprendre politique sociale bi ñuy def ak lu ñu définir ko soxna xam nga est-ce que xam nga ni au minimum 30 des sénégalais yi nekk dans le monde rural exploite 0,8 hectare et il l'exploitent pendant trois mois moy manam, 0,8 hectares lañu exploite exploité ci 3 mois am ci lu 800 kg. jaay ko mu a 150 000 250 000 moom ni ci at mi buñ un ba lolu jeex buñ démé ba lolu jeex ci lañu am wala doom bu am ñu Dakar ut ñoñu ñooñu président mettre en place

Nous euh, avons ci ci benen marché bi une ñooñu genre entreprise yoy qui def système bi famille femmes di Sénégal parce que nous ci bari économie ça touche à peu près 30 de nos femmes ces femmes là pour régler ces problème naturellement nous avons ay jigen yu formation am na ay jigéen ñu leen di tàggat ci transformation mais ñëpp jàngaguñu mais est-ce que dangay toog ba ñëpp jàng nga pousse leen ñu entreprendre wala ñaar yëpp ngay tegandoo DER bi pour loolu la. parce que système bi ngay wax entreprendre au vrai sens du mot moi personnellement en expérimenté naa ko ANPEJ dem nañ ba euh, projet bancable lañ ma daan woowee parce que boo bindee boo ma waxul xaalis bi buñ la ko joxee noo ciy liggéeyee ak noo ciy fayee noo ci dunde ak noo ci duñ la jox mais buñ defee noonu ñi jàng bariwuñu ñi mën a téye loolu bariwuñu et ñeneen ñi nga xam ni jànguñu bëgg liggéey te te du seen coobare ñooñu ci réew mi lañ bokk risque yooyu état bi daf ko jël en charge loolu mooy expliquer sécurité familiale lolo loolu rapidité d'erbe. bi parce que koo ci wax bindal sa projet un projet boo normalement il faut être expert pour nga mener des bind projet faut être ingénieur en finance pour mën rédiger projet projets. Il pour mën a bindal ñëpp li ma lay wax ni jangatu ñaari atu ANPEJ la en motax tax DER bi ñu créer ko def ci yombal bobu yobbu ko ba milliards benen bi nga posé moy ci walu autosuffisance en riz autosuffisance en riz 2017 lañ fixé un objectif bi 2017 on était à 92 2017 on avait fixé 1 million 150 mille tonnes 2017 bi exactement 1 million de tonnes aujourd'hui on est à 1,3 million de tonnes de paddy donc autosuffisance en riz ça ne veut pas dire ni que doit importer lu parce que et faire la différence entre le paddy et le riz blanc parce que ça varie en poids le moto de conversion mais l'objectif en 2017, certes, n'était pas atteint, mais en 2019, on l'a atteint. Le résultat li a wax ni ay chiffres euh, organisme SILS sous-régional bi évaluer production agricole dans zone donc c'est clair on n'a jamais dit qu'on n'a pas atteint l'objectif président Daphné, nous nañu egg qui objectif bo xamné dinañ mëna a parce que tieb bi fi buñ ko transformer ba paré tieb bu gudd bi suñ mbokk Mali dañ ko bëgg suñ mbokk Mauritanie dañ ko bëgg et comme que ñun dañuy subventionner quand même duñ subventionner quand même luñu exporter exporté mën nañ subventionné li ñuy lekk fii nii donc mécanisme yooyu lañ nekk de liggéey ak partenaire technique ak financier. foofu voilà monsieur le ministre Cheikh Baba nga continué mais épuisé na 4 ah, minutes 53 secondes donc. Euh, euh, peut-être mu mu rebondir ci sama temps bi rek mom mu mu mu mu tontu ci. parce que euh, problème bi ñu gis aussi moy mhm. amna li nga xamné produire nañ ko mais écouler ko moy jafé fofu lan moo ci solution véritablement. non en réalité ñu koy produire mais dafa melni ni nit ñi eh, lekkuñu ko. non non compléter juste avec le cas de l'arachide. Ah. ndax tudd nga ko sank ci say propos arachide bi gis nañ commercialisation bi problème bi nga xamante euh, mom la fi andal yépp wa non pour ceeb bi. écoulé ko musul nek problème parce que fofu xeyna na sax deg ngeen ñu am ci problème ak euh, wa zone bi. parce que ñun bu ñu produire dañuy tej marché bi. ba jënd li ñu bay ba pare ba li ñu lekk jeex ba ceeb bi jeex bi ñu fi bay jeex ñu soog a ubbi donc loolu du problème phasage bi yenn saa mooy am problème da ngay gis ku denc ceebam loolu day am waalo suñ mbokk waalo yi boo demee nit ñi ci ceeb la ñuy fayantee loolu mooy problème ci wàllu gerte bi mois man du ma miim ni que mën naa am ay jafe-jafe mais bi fi président nekkee ba léegi njëgu gerte wàññeekul loolu mooy benn Si on ñëw ay bon MP ou deux ans lañ fi fekk fii ñu wax dëgg teg-teg lañ fi tonnes lañ produire aujourd'hui on produit 1 million 400 tonnes 1 million 500 000 tonnes donc saturation yu marché bi mën mais aujourd'hui le président ci diplomatie bu baax fexe na signé accord fexe na bañ signé ak Chine euh, Turquie accord ñuy permettre ñuy exporter guerre. gi jaay à quel prix. non de toute façon jaay euh, à part mbapat bi am sur le sur ci ci ci biir deuk bi moy ñi yàkkamtee jaay ñi am soxla di jaay ñoñu c'est normal mbapat la mais mbapat défavorable ni muy amee. ñi gisul ñi ñuy jaay non non non xam nga point de vente le temps muy ubbi c'est que il faut que ñu régler problème bobu point de vente avant muy ubbi. avant ñuy fixer gerte gi am na ñu déqi am na ñu déqi ñii di takk jabar ñii war a ngénte dañuy dem jaayi loolu mooy réalité ñun ñu ni dunde mais bu ñu fixer prix bi étranger bi mënul jënde moins mais am na ay sénégalais yoo xam ne ci loolu la ñuy spéculer xëy na mën nañ ko bañ a rafetlu yi dem ci marché bi bu pat amee ñu jënd di xaar chinois bi ñëw wala di xaar Sonacos ubbi loolu ñi am xaalis réalité marché mais officiellement on fixer les prix les chinois bi ñëw jënd mënu ko jënd mënu jënd lu ko yes. turquie yi ñëw jënd mënuñu ko jënd lu ko yes. malaisie commencé nay intéressé wu ci suñu donc mais ñu fàttali ni production c'est normal mu am problème parce que 300 000 tonnes 350 000 tonnes ñëw ba 1 million 400 000 tonnes 1 million 500 000 tonnes donc production multipliée, par 4 donc liñ doon l'Indon liñ doon bay dafa yokku donc mécanisme euh, d'écoulement yi mën na bañ a yomb mën na am ay jafe-jafe mais tamit dañuy fay pour ñu xalaat xool nan lañ koy saafara et loolu ñu ngi ci voilà loolu moo indi loolu bokk na ci li indi nga gis ñuy commencé développer te moom sànq mu wax ko xëy dafa dafa suivre rek production bu amee après transformation moo am loolu moo tax ñi nekk Touba di créer ko ñu ñu ñu ñu fexe ba ñuy defar diw segal bi mën ko jaay directement Sonacos loolu moo d'accord usines que ndaw yi Comment Touba commencé développé voilà monsieur le ministre merci beaucoup vous venez d'épuiser six minutes Vous xamante ni dañ ko nous permettre à Biram Souley, parce qu'il y a aussi des axes prioritaires, peut-être nos téléspectateurs attendent à ce que nous invité invité nous aider. Biram, il y a un programme qui finit que tu pendant sept ans développer nos à agriculture vous présentement vous avez parcouru presque 1700 km qui campagne bi commence avec ce qui fait à raison de 300 km jour pour vendre un programme qui articulé au autour de 39 points euh, ci yu ñoo xamante ni bu ñu ko tënkoo am na ñett thèmes majeurs ñett wala ñeent lu jëm ci wàllum institution lu jëm ci wàllum mesure sociale ñi nga xam ne ñoo nekk ci geneen wàll ga euh, ci régie bi ñi ngi naan ma lu jëm ci wàllum social bi ñoom dégg nañu ci coowal li nga xamante ni moo jëm ci wàllum protection sociale congé de maternité yi nga xam ne da ngeen jàpp que ne da ngeen ko jëlee 3 yóbbu ko 6 mois est-ce que mën nga ñëw un peu par rapport ak li nga xamante ni moom mooy jëm ci wàllu programme ci wàllu waaw euh, waaw effectivement en fait d'abord, tu euh, vais ma Tu vois euh, carte euh, carte ah. alors li carte effectivement alors il y a des commissions commission I, je pense que tous les partis sont représentés au niveau des commissions ñi ngi la transmission des cartes ñi ngi relever les informations di transmettre peut-être peut-être on aurait pu euh, une grande campagne de publicité, parce que ça c'est vraiment du ressort du, Sénat ou de la direction générale des élections, def une grande campagne de publicité hein, pour informer les citoyens de cette situation-là, euh, sur les télés, ça ne coûte rien du tout euh, de faire cette campagne-là pour qu'au moins cette préoccupation-là puisse être une préoccupation d'ordre national. Parce que si on le met entre les mains simplement des partis, notamment des candidats qui sont intéressés, en fait, tous les candidats n'ont pas les mêmes moyens par rapport à la prise en charge de ces préoccupations-là vous savez le droit de vote c'est un droit constitutionnel la carte d'électeur permet de participer à l'élection il aurait été bon et je pense que ce n'est pas trop tard euh, bu vous ni euh, euh, ñi direction générale des élections on leur aurait suggéré on leur suggère vraiment de lancer une grande campagne de publicité sur cet élément là pour que nous ñi puissent récupérer carte au niveau des commissions alors ci une euh, proposition bob effectivement xam nga euh, l'histoire de la famille Nous, ñoo wax Sénégal dañoo bëgg changer de paradigme par rapport à la situation de la prise en charge des enfants parce que nous ñoo wax ni passer à l'allaitement exclusif sur les six premiers mois c'est un projet au niveau national xam dañ allaitement exclusif la ñu bëgg def allaitement exclusif nag tekkiwul lenn lu dul liir bi nga xam ne dafa pendant six mois weenu yaayam kese kese kese lañ ko war a nampal kooku c'est un principe qui est posé je pense que amul werante ci ne loolu c'est déjà acté nous on cherche à dire suñu li ñu proposé mooy ci six mois ci période boobu ñoo xam wax allaitement exclusif la il faut créer les conditions pour que jigéen bi mën a respecter ce principe là parce que parce que parce que euh, tay bu fekkene dama wara jigen dafa def allaitement exclusif tay wara xey liguey ak les responsabilités au niveau de l'entreprise on est sûr et certain que bu fekkene horaire d'allaitement biñu bayyi muy une heure de temps 8h 9h wala ngone à partir de 16h Vous am allaitement parce ndax xalé bi ci digënté bi digënté 9h ba 17h war na fa namp dina fa xif mais seulement rapport employeur employé est-ce que déjà tax ñu confiance ci jigen ñu participer aussi Allez-y. S'il vous plaît, permettez-le de terminer. Allez-y, allez-y, Alors, donc, je disais que cette proposition-là, l'IOR Moy, dañ accompagner d'autres éléments d'accompagnement parce que bu ñu un allaitement exclusif vous bu que situation on va créer des crèches fonctionnelles avec des pédiatres proches des lieux de travail pour le monde professionnel, pour la, mise en, la mise en œuvre de la procédure. Maintenant, dans l'approfondissement de l'idée, on en est à dire c'est six mois complets, voilà, mu am deux mois optionnels madame, sur les trois premiers mois en fait aujourd'hui la situation concrète c'est que à un mois de la grossesse euh, de l'accouchement tu as le congé bi boo accouché vous parlez am nga trois mois yo xam ne bi may nañ la nga tok ci sa kër ñu fay la salaire comme moi li fi am mooy situation actuelle bi am wax ni deux mois yi tout nous avons la mise en œuvre parce qu'il faudra que nous régler la mise en œuvre définitive en discutant avec les acteurs sociaux qui sont intéressés est-ce que nous koy deux mois optionnels Beaucoup de gens yow nga dama option en fait c'est un engagement que tu prends amul salaire mais sur le dernier mois par exemple trois mois elle woon élargir à quatre mois mais quand c'est pris en charge le paiement est pris en charge au niveau euh, de l'IPRES ou au niveau de l'employeur en fait en fait de, euh, de, de l'État à côté les mesures d'accompagnement li ñuy wax crèche yi nga xam ne bi dañ koy indi pour teg ko ci wet gi pour que nga xam ne bi nekkul situation boobu bu fekkee ne appliqué ñu règle boobu moom ci boppam ci wetu entreprise am parce que on l'a vu que en fait en Europe c'est une situation qui est développée nit ki day alors li ñuy wut ñun li ñuy wut mooy tabax un citoyen adapté aux préoccupations nationales bi ñuy wax ne tey dafa bokk ci liy développé nation le Sénégalais bi judd ñu teg ko ci conditions yi nga xam ne bi il pourra recevoir et devenir un bon citoyen c'est le premier élément. Donc, cette situation-là, on l'a fait résumer. Maintenant, on peut me poser la question de savoir la situation au niveau de l'entreprise. J'ai vérifié les statistiques. Nous n'avons pas de statistiques effectives sur la situation des personnes concernées. Ah, d'accord. En fait, nous quoi. Non, non, ni cette euh, année. D'accord, d'accord. En fait, nous des statistiques définitives sur les par les accouchements en milieu entreprise. Mais, tout à l'heure, j'ai fait une discussion encore avec un homme son domam bi mujjee juddu mi am un an et huit mois fa muy liggéey entreprise bi mu nekk sept femmes ñoo fa nekk ba mu fa ñëwee ba léegi def na fa cinq ans kenn accouché wul foofu donc c'est ni tey dañuy def application boobu luñ ci mënti wax comme préoccupation en fait la préoccupation est le congrès et on peut discuter ça en entreprise pour trouver les meilleures solutions idoines parce que même l'entreprise a intérêt à ce que kii ñëw di liggéey si sa famille nekk dans de bonnes conditions ñun ñëpp gis nañu jigéen ñi entreprise bu ñu liggéey si ni ñu est-ce que xale bi nàmp na chaque minute ñu woo bon bi est-ce que nàmp na est-ce que jox nga ko mu lekk ak aussi il faut pas oublier le syndrome du bébé secoué parce que kii nga xam ne dafay dem di liggéeyi day jël doomam bàyyi ko mindaan boo xam ne amul expérience ni ñuy téye xale xale bi dafa am bu fa tolloo dafay jooy nit jooyu xale am bu fa tollee boo dul way jur bi ko jur bi ko meññ yow attan nga ko moom la wax le syndrome médicalement la cette maladie là c'est le syndrome du bébé secoué doo ko xam D'accord Donc tous ces paramètres-là, nous en compte pour nous, voici la proposition. Nous avons dit Sénégalais un cadeau. Dès que nous réunis, nous appliqué voilà. Voilà, merci beaucoup. Euh, Samba, Samba, on peut par rapport euh, à... voilà, voilà un peu, mais je rappelle aussi que nous, on avait l'intention de faire participer le public. Ah oui. parce que dañu amoon intention s'il vous plaît monsieur le ministre dinaa ñëw ci tout à l'heure euh, on avait invité des écoles de formation yoo xamante ne yëngu tàggatu ci wàllum euh, journalisme mais lui, gis au niveau de la salle on a plus de militants que looloo tax que ni boo joxee ci wàllu wële bàyyi geneen wàll gi day xaw day euh, compliqué looloo on préfère permettre oui, euh, à nos Euh, à nos confrères ñoom ñu wéyal waxtaan un peu par rapport à li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee monsieur le ministre. Mm. Euh, dama Bougon euh, euh, poser ben question. qui rappelle qu'on est à un quart d'heure. oui de la fin de l'émission. très bien ci ci li nga la gouvernance nga xam ci campagne bi bu ñu le candidat sortant président de la république xam naa bi muy ñëw am na yi nga xam mu Sénégalais. la bonne gouvernance la transparence ak li nga la reddition des comptes. Mm-hmm. Euh, ci li nga xam ne yéen a ngi laaj second mandat fi ngeen toll nii euh, lan ngeen di proposer ci li nga xam ne mooy institution yi nga xam ne tey jii moo ŋànk li nga xam ne di transparence muy OFNAC IGE l'inspection générale des finances ak yu demee noonu nga xam ne ba ci Cour des comptes nga xam ne ci septennat bi bëri na ay rapports yi nga xam produire nañ ko euh, askan wi gise ko neneen wala ñenn ñi nga xam ne pratiquement ci société civile la ñu toll wala ay taxaw seetlu wala sax ci rapport yooyu ñu produire ñu bëri gis ne amul suite. biram ci loolu itam li nga xam ne mooy transparence ndax li fi nekk ci institution ak ni ñu koy doxale ak li nga xam ne moom la joxe comme résultat doy na leen wala yéen ci seen programme lan ngeen ci nal Voilà, on va donner trois minutes à Monsieur le ministre Moutontuchi. Si vous voulez cinq minutes aussi de part et d'autre, on est à 12 minutes de la fin de l'émission. Nendef cinq minutes de part et voilà, allez-y. Moi, moi, je veux revenir sur les proposition et sur si propositions. cinq sur Walou accouchement à 6 mois, 7 mois. En fait, c'est triste. Hein? C'est vraiment triste que nous avons un programme, nous avons évalué. Faut que nous avons sénégalais yi lañuy waxal ni ñuy dunde lañ leen di waxal mënuñu ko teg ci foog na ñun liñ leen proposé lépp ci programme bi dañ ko éprouver du ay nit yu toog di xalaat di bind rek yëf yi toog di xalaat di bind rek ak toog fii régler ko du benn de xam nañ ci dara xam nañ ci dara parce que bi ñuy soog a ñëw yoon yokkute lañ indi ñu toog ba ci yàgg gis ni ko sax day yeex par rapport à la réalité donc biram ma meruma de dara mais li metti moy da ñëw ba indi candidat wax ba yenn jeunes yi engagé wu gëm leen commencé wax xalaat bëgg yam ci ay six mois de congé ku liggéeyul entreprise privée mënoo comprendre parce que nit ñi dañ

Euh, reddition des comptes gis nga gis man man indépendance de la justice parce que dama considérer ni que justice est indépendante et mën nañ ko améliorer amul amul amul dara luñ di mu parfait lu dul li indi système institution yépp dañ par exemple boo tu vois, ci wàllu justice dinaan le CREI dafa évoluer boo ma laajee euh, institution de contrôle OFNAC mën nañ ko améliorer mais amul woon indi nañ ko il faut que bañ a xam état comme sama gars pour ni que da ngay dem porter plainte IGE IGE du enquête tant que président de la république waxu ko faire. IGE IGE ci présidence lay dépendre sénégalais man ak yow ñu ko saisir. mais indépendance ba dans mais mais mais IGE mais IGE corps de contrôle président de la république la pour muy évaluer du du bokkul ci système judiciaire bi mais dañ ni ay rapport am c'est bu ñu c'est que xam nga lan moo dangereux. li ñuy dund. dañoo dem même journaliste yi wax sax dañuy dans la confusion dañuy jaawale lan mooy IGE lan Cour des comptes lan IGF. ah, ah lan non la des comptes nga l'indépendance de la justice. aussi. nga dugal IGE man indépendance c'est clair. modestement confondre ñu Michel le ministre. IGE. E, président saisir. très bien niko demal xolal ma li demal xolal ma lee. te mu war contrôler ñëpp. warul con déggoo ma la warul contrôler ñëpp mën na contrôler ñëpp. IGE mën na contrôler ñëpp mais président mo koy saisir niko demal contrôler ma feulé lolu moy chartu réew mi président moy bind lettre de mission niko dama bëgg évaluer acte trois de la décentralisation li ma def demal auditeel ma ñoom ñu dajalé ay sen cabinet ak cabinet yi ñuy saisir ni lii ak fii ak fii ak fii la dem pour en revenir ci li mu wax ni dañu jàpp nit jaxañ taxañee ko pour un milliard cinq cent rapportu IGE moo am rapportu IGE bi jàppul woon xalifa Sall rek jàpp na yeneen maire yoo xam ni ci wàllu carburant ñii ci wàllu procédure ñii ci wàllu rek yooyu li mu méngool ak yoon mooy dem Cour des comptes ñii dañoo fay dañoo suturaal seen bopp rek mais ki wax ci un milliard six cent yi moom ci boppam musul miim dëgg rek a neex yàlla man de mën na da bu ma sañoon tey suba mu génn mais moom ci boppam musul miim liñ mën a reprocher président mooy gëmmul mairie Guédiawaye dem nañ am na ñu fa dem delloo carburant mairie Kaolack am na ñu fa dem delloo ji carburant loolu lépp ñu ñëpp dégg nañ ko donc mënuñu wax ni que amul indépendance justice ak bonne gouvernance ministère la am fii yi ci bari yi nit ñi di wax comme 94 milliards yi la rek xëy ni 94 milliards jël nañ ko nga xool ci keesu réew 94 milliards génnul fenn dem assemblée ni dañuy jël 10 milliards waa opposition bi ci boppam génn ni amul dem ni pétrole bi dañ ko joxé li ni ñu xol ba ci souf euh, ministre doguma la est-ce que ñu jël euh, exemple ci ci malheureusement waaw boucler minutes 30 euh, secondes. donc malheureusement il faut que ñu permette on est à moins de 6 minutes voire 7 minutes de la fin de l'émission. il faut que ñu jox Biram pour combler l'eau malheureusement dinañ dikkaat peut-être par rapport à ça. d'accord Biram un peu par rapport à interpellation Bamba me poser une question bi. waaw bu ci mënee dikkaat rek du jëm ci walum institution yi. pour édition des comptes.

dafa am une situation que xam dañ euh, les corps de contrôle dañ leen di yónni ñu saytu nit ñu dénk alalu réew mi niñ ko téye ñoom bu ñu defee situation ba gis ni njombe am wala def lu dul noonu am na dresser un rapport rapport yoyu amna na ñoo capacité saisir directement le procureur Nous avons ñoo capacité amuñu capacité saisir procureur dañuy dem référence effectivement ci présidence de la république alors reddition des comptes à la kulixaal képp ko xamni ki da nga téye lu un franc ci au Sénégal war nga dem ci reddition des comptes war nga wax ni li ñu la dénk donté donte jogé wu fa maanaam war nga def des comptes ñu gis ni le compte est soldé en point zéro loolu mooy mooy li normal alors gis nañu effectivement au début biñ fi fiy ñëw président Macky Sall on avait à peu près vingt cinq dossiers yoo xam ne ay dossiers la yoo xam ne tuddoon nañ ci ay nit rapport yi ñu teg ko moo waxaloon ci boppam que il en avait sous le coude loolu moom moo ko waxal boppam loolu fu mu toll ñun dañu wax ni bu ñu ñëwee ci lii dafa war a nekk un point fondamental que justice bi ñu may ko possibilité mu def liggéeyam li ñu wax corps de contrôle désormais li ñu proposé corps de contrôle bi bu saisiré procureur am na diir boo xam ne boo ko toogee diir boo xam bu ko toogee te procureur réagirul corps de contrôle am na droit saisir le juge maanaam rapport ba mu joxoon procureur ne ko saytu woon naa nangam nangam nangam am na lii ci warona def na yegg ci procureur pour procureur arbitrer lolu moy ñu joggé ci pouvoir de pouvoir d'information bi a un pouvoir de saisine dañ koy jox pouvoir de saisine bokk na ci luñ wax ni kon on passe du conseil constitutionnel à une cour constitutionnelle moo xam ne moom mooy nekk au cœur de l'administration de la justice bokk na ci ñu wax ni pour euh, euh, euh, en fait bu bu situation sangam tego ñu ah nangam nangam qu'on puisse organiser les conditions d'une manifestation de la vérité bokk ci même lolu ki nga xamni bi dañu japp ni dafa togn ñu jël ko ko ils sont au bord de la société ndax dañu japp dañu togn askan wi war nañ leena ber touti def prise de conscience ni ñu nekk ci en fait c'est vrai il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits et c'est l'occasion de dire encore au colonel Daouda Diop toute notre reconnaissance pour la qualité du travail qu'il a fait au niveau de la prison de Rebus. léegi léegi baax na nag élargir ko maanaam kaso bi ci boppam nekkinu gaañ yi nañ ko defar parce que après tout ay citoyens lañu nit ñi les on peut mettre des efforts ba ñoom seen bopp ñu nekk dans des conditions de pouvoir redevenir des citoyens normaux yu avec ak une capacité d'intégrer la société cadre de bons citoyens parce que aussi nous nga njumte njumte kenn mucc ci njumte kenn mucc ci mën naa dal ku ne yenn saa yi sax ñu tooñ nit dugal ko fa alors beaucoup de fa dugalee bàyyi ko ci conditions yoo xam ni la fa ne conditions yoo fa ne mooy la radicalisation en prison ça pose réellement problème beneen bi mooy li ci mujj mooy n'ek na ñoo n'ek ne dañuy nekk dañuy nekk def fa 5 ans 6 ans ñak nañ seen liggéey seen njaboot tas na amatuñu dara bu ñu génnee mënatuñu am liggéey ndax fa ñu nekkoon ñàkk nañu place ba ñu génne leen ne defatuñu dara le processus d'indemnisation et de réinsertion je pense que loolu ñun ñëpp ay citoyens lañu citoyen ba nekk ci kaso ba ak ka nekk fi ñoo ci bokk yam ñun loolu lañu wax ni réduction des comptes ak wàllu justice bi lii lañ ci gis ci loo xam ne moom mën nañ ko arbitrer njariñu Sénégalais yi moo ci nekk du ñu terminer du ñu terminer ci loolu te waxuñu ne euh, le ministre de la justice qui la carrière du parquet nous sommes magistrat yi nous gérer ko Nous voulons ñu wëlbati wax nous mettre en place ben en fait organe son rôle son rôle c'est notamment sur la disparition des fonds politiques parce que nous les fonds politiques il faut que nous disions indi des fonds spéciaux fonds spéciaux c'est destiné à la sécurité xam nga état bu ci nekk dafa am loo xam ne lii moom la ñuy wax wàllu espérance état bu nekk da koy def li ñuy espérance dafa bokk ci liy dundal état c'est fondamental parce que ñun ñëpp jàpp nañu ni information mooy le cœur de l'état. achat d'information. voilà ma nga ah. ko donc loolu la kulli xaal faaw ñu liggéey ci. donc moo tax ñu ne fonds politique yi nga xamante ne bi amuñu benn contrôle bu ñu ci teg dañ koy dindi indi des fonds sociaux. 5 minutes 15 secondes voilà on est arrivé au terme de l'émission malheureusement bëggoon nañu mu gën a yaatu mais li duuf ci nag bi xëy ci cin bi ñoo permet juste à Samba Ardo peut-être question bo xamanteni daf koy djublé nit ñi en en une minute ñom ñaar ko né 30 secondes mu jëm ko sànq lu ñu wax réalisation bilan alors yéen ci euh, wa euh, candidat Sonko est-ce que mu jox askan bi rek ñett ponk wala ñett firnde rek tax askan wi war mën voter Ousmane Sonko ci élection ci lu gàtt. waaw benn bu ñëk bi moy ñaari candidat dañu taxaw entre autres candidats dafa am candidat boo xam ne dafa Sénégal de 2004 euh, disons ba 2008 mu pare ñu ne ne dafa bëgg nekk candidat ñu ne ko waxal sa alal mu ne milliards ci suuf ak ci oto waxal lu nekk compte bancaire am à côté moom benn fonctionnaire boo xam dafa liggéey ans wax ni amna ñaari compte bancaire ben auto ak ben kër yeen ku ci gis benen kër bo xam bi ku ci gis benen kër wala beneen suusam dañ man maa ko moom jëlal ma may la defal huissier huissier defal le constat bi nga def attribution ñu may la nga ya yaa jël ñaar ñooñu buñu taxawé ku ci ne lu bëgg nek candidat ku ne dama bëgg nekk candidat dama japp ni ki jub ñu def candidat moy suma candidat. voilà merci beaucoup. Euh, dafa am en en une minute voilà monsieur le ministre. Ah, en une minute le temps temps vu moi dire une minute la woon. <laughs> ah mais. <laughs> dépassé débordé nañ sax. on va permettre à monsieur le ministre peut-être mu mu wax ci question boobule. ah Samba un peu par rapport à laaj bi euh, di di di remercier. choisir. Euh, voilà candidat Macky Sall. waaw parce qu'il est le meilleur et parce que wax dëgg yàlla 2012 bi muy jël réew mi.

man du ma ni saafara nañ lépp waaye wax dëgg yàlla am na yéene ci réew mi ci li muy wax pare na ko lu méngoo ak li ñu ñun tappalewuñu tandusuñu euh, gisaanewuñu làmbatuwuñu li ñu def sénégalais yi ku ko ci laal daj ko bilan bi ku ko laal daj ko liñ nar a def ku ubbi livre bi xam ne lu yanu maanaa la lu mën nekk la et incha allahu rabbi luy nekk la. voilà merci pour la monsieur On va terminer en beauté chez Bamba en 30 secondes, de même que pour Marguerite Rosalie Ndiaye et, pour Samba Ardo. Voilà, may dikkaat ci sama euh, invité yi. Euh, ben du rafetlu format bien. Hein. Mhm. absolument ci euh, waay gërëm la disponibilité des représentants des candidats. Mhm. di jaajëfal bu baax a baax aussi ñi nga xam ne di remercier. Euh, voilà merci beaucoup Chama Bamba euh, Faye je rappelle que moi, je suis le rédacteur en chef de la radio Dunia Vision Marguerite Rosaline Ndiaye à vous la parole. Euh, à l'image de Bamba hein, remercier nos deux invités pour cette disponibilité remercier également DTV ci format émission bi nga face aux citoyens Donnez dinañ le avec Yenen nit aussi ce sera pareil merci à vous également Qui m'a demandé Samba <laughs> merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et de nous avoir au moins euh, fait l'insigne de, de participer à ce débat euh, merci beaucoup Mansour c'est partagé Merci hein. à remercier nag également merci remercier aussi euh, public B. merci beaucoup et merci également à la DTV mhm. Voilà, merci beaucoup à vous. Je aussi, merci beaucoup à vous et à, M. Monsieur le ministre, et infiniment même, je le dirais, pour la disponibilité aussi de même que pour Biram Souley Diop xam trop chargé même Vous mhm. nous avez au moins fait cet honneur là de vouloir venir participer à cette émission pour permettre aussi à tous ces jeunes là qui nous regardent aussi de comprendre parce que le choix de la langue est loin d'être fortuit parce que mais je pense bien que ça va être élitiste loolu lañ ci bëggoon monsieur le ministre ñu bàyyi la nga tàggoog téléspectateur yi. waaw di sant ñëpp di di leen gërëm di wax sama xarit Birame Souleye bu yëf yi jeexee après nga ñëw <laughs> ci parce que ñun ñëpp lañuy woo doomu Sénégal bu boo xam ni yaakaar nga ni mën nga indi dara ci tabaxu réew mi président de la république soxla na la Sénégal nii la bu jongante yi paase ki ko gën a euh, ki ko yàlla jox. parce que ñun dañu gëm ni nak yalla moy joxe nguur <coughs> inshallah bu ko yalla défé mu don suñu candidat yalla nako ko nekk moi je vous invite à rejoindre la mouvance présidentielle et après ñu liguer réew mi comme ça ñu génn ci jafé jafé yi bayyi wax di voilà merci beaucoup allez-y Biram. <laughs> merci waaw ma li ñu bëgg wax rek moy mhm. ñi ngi jëm ci ñi ngi jëm ci élection. Mhm. Euh, dina bax euh, les écuries politiques. Mhm. waxtaan ak ñi nekk sur le terrain. parce que ku ci gaañ nit aussi sa mbokk rek nga gaañ. absolument dara jaru ko fi. dara jaru ko fi euh, di wax les services d'ordre nañu bàyyi xel ci nit ñi ni ñuy nekkee ci terrain bi aussi que ku ci nekk daal xamal ni sa mbokk nga jàkkaarloo man famille am na ñoo xam ne ñi bokkuñu fu ñu far tey bu ñu doxoon ba tase ci mbedd mi ma def no xam du noonu gaañ fa nit man maay tuuti ci sama biir njaboot te on a vu des pays l'affaire Dreyfus buñ ko fàttalikoo dañu wax ni famille buñ ci wax rek rayante nañ ci biir famille ba jaru ko élection lañ jëm Nous avons un bilan nous indi nañ projet nañu jox ñi nga xam en âme et conscience dans leur intime conviction le soir de l'élection nous avons une élection transparente Qui gagnait Gagnait de manière transparente Nous des félicité c'est le Sénégal qui va gagner voilà aussi

waaye tamit duñ jeexal waxtaan wi te daa jëfalu ñu administration bu place du souvenir ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo ñu permettre peut-être ñu mën fi def numéro bu njëkk bu seen émission bi nga xamanteni nak moy face aux citoyens dimanche bi di ñëw inshallah rabbi suñ ko suñ borom mayé dinañ fi téwaat ak yeneen invité ngir waxtaan ak ñom ci lu jëm nu melni le seen chaîne de télévision la DTV di leen di wéy di leen gunge rek ci campagne électorale bi ndax bu subaa ci altmine gi de bu 10 h jotee ci suba di ñu mëna top nak ci li nga xamanteni moy les échos de la campagne je vous rappelle restez connectés jamais déconnectés sur la machine de la télé.